mu néew mu bari lu am solo lañ bëgg di dugg ak qualité ak lu yéete ak lu jariñe euh, ndax dëkk bi nekk ku farluwul ci lu baax rek di am problème ndax nit ñi caaxaan dafa am doole lool ba loo def lu dul caaxaan sax te ñu yaakaar ne caaxaan ay dëkk te fekk moom yàlla mu bañoon ba léegi bëggu ko lam bëggoon ba léegi bañagu ko kon mbir mi ci mi ci Pastef ak taalibe ak farlu te nag ñi ngi waxtaan ci ko xam ne que spécial la ku farlu la ku liggéeyal boromam la ku liggéeyal waajuram la ku liggéeyal lislaam la koo xam ne que ka gën a sikki ci àddina gërëm na doxalinam ndax loru la benn yoon te jariñ na la ci fépp yërmandeem baaxaayam maandoom li naan ba baat bi sax siiw na ci lu jëmul ci lislaam amu ci defar amu ci yàq ñi ngi waxtaane sëriñ saaliwu mbàkke ibnu sëriñ tuubaa xaadim rasul doon koo xam ne que wax dëgg yàlla xalif général la boo xam ne que defe naa moom lañ mujj xam ci doomu Serigne Touba ci kaw suuf ci saayir nga seen koo xam ne que lu ne jaral nag ko ndax yërmandeem ci liggéeyam ak lim jiitee woon ci àddina bi ni mu rëyee ak boo ñëwee fa koy fekk nga xam ne kii yàlla rek a ko ñor ak liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasul kooku nag waxtaanee ci moom duñ ci ànd ak sago. lu ngeen fi dégg na ngeen comprendre lu ngeen gisee nan comprendre maa ngi wax nag ba kenn gis ma yaakaar ne maa nekk ci lu dul sama domaine yéen commentaire kat yëpp laa avertir di leen wax ne sëñ Saliou Mbacke bi mu fi jógee ci saay ña doon wax ca télé ba boomaa moment bi télé bi gën a jafe ku ciy wax Babacar Diagne directeur général bu RTS doon ambassade boo xam ne que mi ngi nekkoon États-Unis léegi mu jiite CNRA moo mu dugal studio kenn invité wu man kese ma wax ca lu mën a dégg kon ba may wax ci sëñ Saliou du léegi boobaak léegi nag ñi ngi naan treize ans kon léegi ngeen xam ne kon lii may wax lu ma xam la lu ma tal la lu ma ñor la te sama domaine la euh, ñi ngi toog ak euh, sëñ Cheikh Ngunda Guèye di jànkatu xasaayit bu nekk ca Amérique nga xam ne que xasaayit jaral na ko lu ne jaral na ko yitteem la ak Pastef doon koo xam ne que ko farlu la ci lu baax ndax am na nu bu bëggoon a defi laneen def ko mais foo ko fekk ci yoonu yàlla wéy ci ndigal liggéey Serigne Touba moo ko ñor ku ko ci woo du tàngam lu boo ko betteeg boo ko bettul ndax loolu mooy yitteem ñi ngi dalal tamit euh, Serigne saaliw Seck alxuraan turandoo sëñ Saliou mi ñuy waxtaane sëñ Saliou Seck alxuraan nga xam ne que tamit ràññeeku na ci wax ci mbirum sëñ saaliw ba àdduna wërngal këpp nangul ko loolu ñi dalal tamit ay Aydara Sow sëñ dara Sow boo ko tuddee rek bu la neexee nga ne bu daaru muxti sëñ Aydara Sow daaru muxti di conférencier di waxtaan ci Serigne Touba di waxtaan ci diine di waxtaan ci lu baax ñu bëgg indi jataayu njëriñ bu baax a baax a baax kon dañuy jox sëñ Cheikh Ngunda boo nuyoo sëñ Saliou nuyoo sëñ Aydara Sow nuyoo bu nuyoo nag ñu ñëw ci sëñ Cheikh Ngunda nga ubbee xasaayit ñu soog a dem ci leneen looy nuyoo àdduna wërngal këpp bi lay seetaan ci Tektal TV ci jataay bu am solo bi. auzu billahi mina shaytaani rajim wa inni a'iisuhaa bika wa suriyatahaa mina seytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yaxduruun barke borom Tuubaa barke maam Cheikh Ibra salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaar ci jataay bu mag bi nga xam ni moom lañu fas yéene amal te jëme ko ci Cheikh Saalihu Mbàkke ibnu Xaadimu Rasuul muy jataay ba am solo boo xam ne ñu ngi ko fas yéenee defe fii ci Tektal TV ànd kook suñu mbokk yu baax yi suñu Cheikh Taalif suñu Saalixu suñu ay dara di ñaan ñu dugg ci ak bismillahi rahmaani rahim te àggalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te làq ci ngërëmal sëriñ Saaliw mi nga xam ni moo nu fi tax a daje masha Allah kon yaa ngi ñëwaat sax li ubbeeku xasaay léemu ko ci xasida sëñ Saaliw bismillah léegi nag àdduna war nga këpp mi lay seetaan wa balaawadu raxayn wa kalaam muhammadun sayidul kawnayni wa saxalayni wal farixayni min xurbin wa min xajam maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullahi wa xaatiman nabiina wa kaana allahu bi kulli seen aliman oloomi wa xirfaani wa sax yi sakkiyatun liman bika li xalat walif wa sarxa mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci rant bi sant Cheikh Ahmad Bamba ñaanal suñ mun taxaw mu yàgg fi loolu te wér ñaanal mbooleem jullit di am mbégte lool suñ Cheikh feggoog sunu xarit sunu lépp muy sëñ Cheikh Ngounda Guèye tubaarkàlla di jàngatu xasaayit sëñ ay dara saw moom it di sama mbokkum taalibe ñu bokk daarul moxti da nga lay jaar a baax di am mbégte loolu dëgg yàlla ci sëriñ Saliou Mbacke bi ñu fas yéene waxtaan incha allah di xaarat kàddu gi incha allah jërëjëf euh, sëñ Saliou Seck alxuraan ñu ñëw nag ci sëriñ ay dara sow daaru musti daaru muxti wala sëñ ay dara sow mu daaru muxti wala bu daaru muxti wala sëñ ay dara sow daaru musti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 ci jàkkaarloo gi nu jàkkaarloo ak yéen ci seen barab bu mag bii di Tektal TV di ñaan sun borom yokk ko te yokk di am mbégte bokk kook sama xarit yi sama mbokki taalibe yi sama kilifa yi mu di Serigne Cheikh Ngounda mu baax mi man xasida lool te sellale ko ak Serigne Saliou Seck alquran mu baax mi moom tur wi rek daanaka day yóbbaale mbir mi noo ngi koy nuyu te di ko siyaare di nuyu mboolem personnel bi liggéey ci biir Tektal TV waaye di nuyu sama xarit bu baax bi Serigne Cheikh taalif di ñaan rek sunu borom àggaleel nu li nu yéenee def te mooy waxtaane jàmbaar ju mag yi mu di Serigne Saliou Mbacké te taxeer taaxeerlu rek di xaar noonu mën a tàbbee ci liggéey bi incha allahu taala. léegi Darou Mouhty ñu dugal ko fan suñ ay dara sow Darou Mouhty wala ñu def noonu Darou Mouhty kon ñu bind ko ci écran ay dara sow Darou Mouhty jeex na kon incha allah jërëjëf mbokk yi seetaan euh, Tektal TV comme ku neex. Euh, yéen a ngi ànd ak Tektal TV mën ngeen abonné bés fu ruus bi bés cloche bi bu dee page Facebook bi Tektal TV l'officiel fépp fu ngeen làmb euh, daj ñu euh, sëñ Cheikh Ngounda Gueye kon nag bismillah àdduna war ngeen këpp diaspora bi yëpp yow la ñuy déglu pour nga léewuñ jataay bi ci xasida jataay ngëneel daal la nekk bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim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 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محمد محمد محمد مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان باخ داما مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان باخ داما حمد وشكر للذي أدام على الذي يحبده إنحاما محمد يحبنا وقاما بما يسرنا فلن نلام محمد أنا لنا المرام خدنا له الصلاة والسلام دعا الذي خاد لنا الإكرام توجيهنا له رضا أقلاما من بما يقلد اقتراما ربي علينا وحبل كلاما حسنا كتابا وجعل كراما لحبنا ولا نرى لآما محمد أهديته إحساما كل إلى جناتنا إقداما محمد أوصل لي ساما هدية لا تحتوي اختتاما دفع من لي عبب الأناما إلى سواي مكروه دواما مع النبي خبلس استقاما عني ولا ينبلي خراما عجبني عما وانتقاما وما حوى فزاد أو إجراما أن به اللين وجعل حراما إلى سواي وبقاء راما من بما كل بي قد ساما عن كل ما شاء أرى إحكاما ديني حب الله حبا داما وخب من به منا أداما ديني يحب الله حبا داما وحب من به منا أداما ديني يحب الله حبا داما وحب من به منا أداما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام yaram daw na yax des na ndax njëriñ feeñ na euh, xam xasida bu ni teewlu ñu koy njàng njàng mu set wicc képp ku bëgg lu baax di ci kontaan du bëgg nga noppi ndax du doyal ci njëriñ kon yàlla na yàlla gën a wéral baat bi gën la yëkkati ca kaw ba nga am lu kawe njort ci mbir yi ba ku la ciy roy tamit am ci lu kawe njort daal ndax dëgg rek mooy dëgg bu caaxaan jeexee moom dëgg des ah, liggéey jaamu yàlla wéy ci ndigal doonu taalibe loolu mooy njariñ li te bu nit ñi tiitee rek dinañ xam ne dëgg mooy njariñ daal kon na yàlla yàlla nu yàlla xiir ci boppam bu baax a baax ak taalibe jërëjëf sëñ Cheikh Ngounda ah, kon kontaan bu baax a baax dinañ ñëwaat ci beneen mbir parce que fu mu kii rek nga yëngalaat ci njariñ daal bu soobee yàlla euh, léegi nag dina ñëw ci turandoo sëñ Saliou di sëñ Saliou sekk ñu bëgg la laaj première question sëñ Saliou Mbacke ibnu Serigne Touba Khadim Rasoul xalif général des Mourides moom mooy kan fan la cosaanoo ci saayir ban année la gane jamono ci saayir jour anniversaire am nga xam ne ko ko bëgg xam sax di ko ñaanal di ko bàyyi xel kañ na nga wax cosaan ay ñan ñoo ay mbokkam fi mu cosaanu yëpp après ñu soog a ñëw ci fu mu jàngee yooyu mais cosaan bi daal laa bëgg ñu njëkk ko. yàlla yàlla barkeel ñaan waaw Serigne Saliou Mbacké doy na sëkk ab nag Serigne Touba sama baay waaye waajuru mu jigéen wa tamit dubu yaafus hmm. waaye borom xam-xam dañuy wax ni yàlla bu nammee mbir day waajal sabab ya iza aradallahu amraan hayyan lahu lawal asbaabu yàlla bu namee bi day waajal sabab ya te yoon saa salaam dafa wax ni kullu muyassarun limaa xuliqa lahu yàlla lu mu nam ci nit ki rek da koy yombal moo tax Serigne Saliou bu yàlla namee ci moom mu doon ko jub ba pare war a doon ab royukaay daf koo waajal te loolu li ko yombal mooy da ko tànnal ñaari waajur yu baax muy Serigne Touba kenn du ko présenté réew mi waaw wala adduna bi baax pare wajur wu jigéen wa mbaakool ga mu kenn gënu ko fa genn jigéen gënu ko fa ndax mokkal na alxuraan avant muy ñëw ci kër sëñ Tuubaa sëñ Saliou damay faral bu saa xewar faat ma amutoon mën naa bañ am baax ci réew mi waaye ba lislaam sosoo ba léegi sax ña mënoon ca cedd ga seeni sëta man ci Xataab moom waxuma la sax ab cedd waaye bi yëfar loolu daana toog ba yàgg bu njëkk bokk na ci yëfar yi xam ne dañu rey seen doom bu jigéen bu juddoo nga xam doyewuñ dara doom jigéen nee na bi ma nee ba doon lis ba doon bokk ci lislaam damay ba toog mu yàgg ma jooy lu waral loolu muy damaa ko keroog bi may suul sama doom bu jigéen mu ni ma papa sa sikkim bi takk mu suuf ca teewul mu suul ko xam nga ki àgg foofu ci ak yëfar te pourtant diine bu amee ndam moo tax sëñ Tuubaa nee bu teddee ba ñëpp di ko jariñoo Seydina Omar a tas sa diine lu ma issu sa yaa tax diine tedd nee na ba mu yàgg ma daal di reetaan ñoo ko la la muy damaa bi may jaamu sama yàlla yi bong bong ji maa dem ba ci àll bi ma xiif dagg tànk bi ko ba yàlla di jeex kon ki nekkan foofu jëg réer da yaa tax mu am ndam ndax lu ñëwee dañoo saa ndax lislaam la mu ne ko waaw mu ne ko lu tax ngeen di julli nëbbatu kon noddu ca kaw fekk lislaam door am 39 personnes bu ñu julli dañuy nëbbatu noddu ndànk kenn du leen dégg ci yenn saa salaam mu ko jiite mu ñëw daan loolu day jeex ak dooleem ji bari ja sëñ saa xewar faat ma nag dafa jekk ba mu yàgg mu dem seeti Matar Ndombe Diop ni ko damaa bëgg a tuub dugg lislaam ab cedd la ma Matar Ndombe tuubal ko ni ko ñaata dëkk nga yilif mu ne ko yilif naa fanweeri dëkk ci Kajoor yoo xam ne bis yàlla sàkk sama ndigal la ñuy mu ne ko léegi buntu kër bu nekk dama taxaw fa nga yalwaan xam nga loolu toroxal sa bopp la ak ak mu ne ko baax na ñu ne ah, bi dëgg la de bóoru moo dem ba yalwaan say xawar faatma ak ni ñu doone woon dammel ci dëkk bi ñu ah kii tuubam bi dëgg la mu dem sañ ci dëkk mook soxnaam tuddoo ko daal di wax ni cil ma xanaa ci lépp lu bon mooy cil ma xambaa ko taaw tawlo madu yàlla sàmm maram xaya ma paate aram si la sump ca ñaxal ndaak fal si li ba soxna jëng si li bu tuub doon sëñ Saliou dam waaye mbaax ga ne ca moom faw mu tuub sëñ Tuubaa am fa njaboot loola faw mu ko moom moo tax mu daan wax ni fu baax nekk rek sëñ Tuubaa dina ko jëriñ waajur mu jigéen ñi soxna fat jaxati nag yaayam soxna jëng si li baas moo sëñ mañaaw si laa bokk ndey ak baay soxna Faat Jaxate moo ko si am bokk ndey ak baay sëñ Tubaa seexal na ko mooy taaw yoonu murit bis bi sëñ Tubaa taxawal yoonu murit ci la gën a jamono moo sëñ Tubaa daa wax ne mooy taaw yoonu murit am satu sëñ Abdourahmane Jaxate tamit rakkam ñooñu nag dañoo féete woon moo ko sëñ Alsaan nag ñooñu dañoo féete woon Mbakol waaye sëñ Mbàkke Jaxate ak sëñ am satu Jaxate ñoom biir kër sëñ Tubaa leen féete woon ci njaareem sëñ Tubaa diisoog ñoom lu bari sëñ am satu mi sëñ Tubaa lu ne la ko daan wax ci ay secret sëñ Mbàkke fekk sañ ngaa la moo xam da ngay yéeg moo xam da ngay moo xam da ngay ñaaj jàll waaye fu ma fekk mën nga fa foo fekk mën nga ñëw ba sëñ Tuubaa at mi nelawee sax moom la ndax dañu ko man de wërsëg yàlla wërsëg de ret bokkuma ci moo xam ne sëñ bi day dem waaw ngi jaay sëriñ Saliou la kon famille bi mu bokk wàccuwaale am sëñ Tuubaa ba pare mus ñoo lekk moyal maanaam buñ mus ñoo lekk lu ko wutal ma leen fekk bu alxuraan pare doonoon jàmbaar di ab jàngalekat soxna Mati Jaxate mi nga xam ni mooy waajuru sëñ Moustapha Saliou mm-hmm. Abdourahmane Jaxate mi wax ni nga xam ni moo waajuru sëñ Saliou ñoo bokk ndey ak baay moo ko jur mm-hmm. soxna Mati Jaxate moomu nee na soxna soxna Fat Jaxate ko jàngal moo ko jàngal téere bu Masaalikul Jinaan jigéen la ju doon jàngale mm-hmm. ba pare jigéen woon Sëriñ Tuubaa lool xam ci moom lu baree bare bari ñàkk caaxaan nag nee na naa gis benn jigéen néeg suñ soxna Fatou Jaxate ko nettali ci néeg jigéen néeg génn góor ca jaareen ci mag yi kilifa yi nekkoon kër Sëñ Tuubaa fekk da ko fóotal ay yére di ko dugal ci néeg bi nee na bi Sëñ Tuubaa moom dañu ko ay looy wut fii doo nee na mu ne ko bàyyi diw laa da ko fóotal nee na Sëñ Tuubaa dañu ko nañ ma yëkkatil néeg bi dindi suuf si sànnil ma ko ci àllu àllu àllu Jurbel ba ana gone ko jigéen a dugg ci néeg góor soxna Fatou Jaxate daan wax ni léegi su jikkee ba mu yàgg ñu naan diw mu di sànnil dama yéem nee na Sëñ Tuubaa def na lii sama kanam ma ko ci njariñ déedéet murid saadix du yombul moom kon Serigne Saliou foofu la ko yàlla jaarale mu doon koo xam ne njaareem la gën a jamono moom laay wax le 22 septembre la gën a jamono waaw 1900 1915 waaye fukki fan ak ñeent ci diggu tabaski maanaam buñ ne diggu tabaski weer wi bu dee weeru tabaski la ñuy dugg ca fukki fan ak ñeent la gën a jamono waaye 22 septembre la tombeel jeudi moom la tombeel ca ca njaareem noonu taxul ma xam ko waaw waaye jeudi la tax benn euh, moom nag mu doon koo xam ni bi mu matee dal jàng tamit sëñ Tuubaa ko dalal jàng booy boole koog sëñ am sot jaxate bi mu a jamono ci sensé nag moom sëñ Lamine Diop Dagana fa la ko fekk moom moo tudd sax yàlla moo tudd bindal ko bindal bind as saaliha noonu lañ ko noonu la ko sëñ Tuubaa tuddee ndax ñu ngi njaareem sëñ Saaliu njaareem la gën a jamono mm. waaye juróom jigéen nag ma nga wàccoon Jolof ba sëñ Tuubaa ci Jolof lañ ko fi indi sëñ Tuubaa jógee seen Jolof ànd moom sëñ Saliou sëñ Abdou Baaxe la bokkal ndey ak baay ak soxna Tahira ak sëñ Abdul Xuduus ñu ngi la bokkal ndey ak baay boo demee xurum boo demee ndaam fa lañ leen denc ñoom ñoo ndaam ñu denc mu doon koo xam ni nag euh, biñ ko tuddee wax ni assaalixa la tudd si lem job dagal tudd ko da koo ñaanal da ko bindal ab bind daal di koy ñaanal waaye ñaan nga dal na ko daa yóotu benn kayit bind ci ñaar ñaari béy wax ni yàlla doon ab jant buy tiim waa jamono ba loolu nag kon parce que doomi sëñ Tuubaa moo ci a gudd fan 92 ans la dund keneen amu ko ci sëñ Fallou ci ci ëpp ay samay at dama ko tënk ci lakkum lakkum nag mooy 90 ans laam 30 la keef 20 mim 40 90 waaye dama koy séddale lahum rek laa fi am muy 75 ans laam 30 xañ ko béer 5 mim 40 75 ans la dund waaye 92 sëñ sëñ Saliou ko dund muy moom aw turam yàlla la jàpp muy asaaliha 99 la 99 turu suñu borom yëpp 99 la bu mujj ba moom la jàpp muy saaliha bi ci des mooy 92 ans yi mu dund mooy Muhammad waaw kon ñaan dañ ko ñaanal yàlla nangu na ko dañu abxaa lanaa bi fadlihi saaliha baaxin lanaa jaddali bi saaliha abxaawu samsan fii sama dëhrihi yasxalu min wàccihu kaaliha da ko ñaanal wax ni yàlla na doon ab jant Tuubaa waaye loolu am na ndax mooy jant baa jamonoom suñ Musaa Ka tam ñaanal na ko ñoom ñëpp seen ñaan nga daa mel daan na mbooleem ni dooni sal yi ne ci saw jant yàlla na a li seen jant bi tiw waa xarlu masha Allah kon ñoom seen ñaan nga nangu na la ràññeekoo waaw euh, mu doon mu xam nag boo ko da nga wax euh, mu doon koo xam nag waajur mu jigéen dafa doon ku ragal yàlla lool kon war naa mën a baax waajur wu jigéen daa am solo ci nit fi ne yonent Yàlla Isa waajur mu jigéen muy Mariam mboolem jigéen adduna bi mu jigéen moom la yàlla wax ci alxuraan yaa Mariam inna llaaha stafaaki wa taharaki wastafaki alaa nisaa'il aalamiin maanaam a jaamu yàlla tax yàlla may ko doom jëmul bàyyi xale bi muy am doom sonn na it ëm boo xam ne inhéritant yàlla ne ko wa hussii ilayki bi jiz'i naxlati tasaaqqat alayki rutban janiyya gës sama tàndarma gi booy lekk dam doom moo tax ñu koy digal jigéen ñi hmm. waaw buñu tollee foofu mu daal di gën a jamono bi mu ñëwee ànd ak mbokkam ñëw ay mbokkam dañu ko ah, def nga erreur sa yaay ak sa baay neen baaxee nga am doom jamul baay kon nit nekk nit la ñuy gëm nga xam sa bopp mooy tax doo am doo def defet te ku sa bopp di nga xam sa borom man xarafa na su faxat xarafa rabbu leen sa salam wax mu ñëw ay mbokkam ne ko def nga erreur maakaana aboki imra asawinu maakaana tuubi ki baqiya doom baay nga fi indi yàlla wax liir bi ne ko tontul mu tàllal loxoom moom yoon tàll Isa de ci liir bi inni habdullahi atinil kitab mun jaamu yàlla la ñu ne ah lii dem kéemtaan la waaye kii njaaluwul mu daal di set waaye sëñ Saliou nag waajur bu jigéen bi tànk yooyu te la nekkoon xam sëñ Tuubaa fu muy tànn da koy xool sëñ giir bu ñu wax alel la bokk mook sëñ laat sëñ soñ bi seen maam yaa nga dëkk mbaakoon comme sëñ Tuubaa giir bu gonjox la bokk sëñ Mourou Moussa ak sëñ Baara di ay néegi seey sëñ Ibrahima borom dër bi sëñ Ibrahima Mbàkke ay dawal xaaj seen maam yaa nga dëkk gànnaar sëñ Fallou Bousso ab jax réew la sëñ Massamba néegu gomaay la bokk sëñ Abdou Khadir ab dëngeñ la borom daru mu teg maam Salaam Fall ay jaafuñ lanu sëñ Basiru Fatou moo maam wéggeñ la sëñ Bas Abdou Khadir néegu wëlig la bokk sëñ Abdou ay daroobe lanu mook maam maaram seen maam sëñ Mor Seydi ab siin la loolu nag sëñ Moussa Ka da ko boole ci wenn way nee na foo ci mën a bokk bokk ci kër sëñ Tuubaa gën a dis wéggeñ baati néegu géej daroo beeki néegi sey du tee wàcc sa os nga te dem Mbàkke mbaa Tuubaa nee juddu pur meloo mbàkkul sëful doonu jaare mi ndax seen teeñe ñu dara am na sëriñ Tuubaa muy kon ñoo ngi ñëwaat incha allah <laughs> mais léegi balaa ñuy sori comme euh, sëñ Saliou bëgg nañ xam euh, mais boobu dinañ ci ñëwaat ci fukki at ñaar yi mu dund ak euh, ku tedd ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul seen relation dinañ ñëwaat foofu noonu mais dina ñëw ak sëñ Aydara Sow Daaru Muxti ci sëñ Saliou lañ bëgg a xam ñëw moom ñëw ak yow ci yërmande baatu yërmande sëñ Saliou ni mu siiwee sëñ Saliou ni bëggee gone sëñ Saliou tamit euh, maanaam ci lim jiite woon ni mu rëyee nga xam murid yu bari nand nan ne euh, otoom bu doon daw sax bu kee taxaw rek mën na ñëw ñaanal leen continuer waat nga xam nag euh, fii am na ci ñenn ñoo xam buñ jekke addu buñ jekke jekkoo àdduna bay dem ñemewoo taxaw di taxawal seen oto ndax risques ci nekk kenn nag jiite li gën a rëy ba pare oyof oyef toy ba pare ku ne am cër ci moom daal nga xam ne que boo fa ñëwee du alal moo la fay may pouvoir du pouvoir moo la fay may dara mais diine ak Pastef rek moo mën a tax nga fee nga féete fa kaw wala nga ñu jox la cër daal waaw ci sëñ Saliou ak yërmande la bëgg ñëw ak faneen fu la neex tamit ci sëñ Saliou parce que bëgguma laaj fii fekk am na foo waroon tibb fu gën a neex. ok macha allah waaye jërëjëf Serigne Saliou Seck alxuraan ah, ubbi bi am na solo ah, mën naa ni waxtaan wi eh, mën naa doon branche buy topp rek waxtaan waxtaanu Seex Saalihu am na solo trop sëñ Saliou bu fekkoon loo xam ne dañ naan symbole am la muy yërmande léppam mooy yërmande soo xoolee moom li tax xol yëpp daw dëgmal ko yërmaane jum ëppaloon doomu aadama yi la doomu yi saa soo leen yéene jàmm yéene leen yërmande ak noo man a mel nit ñi topp la rawatina nag bi nga yoree jikko yu baax sëñ Saliou yërmandeem danga koy tënk ci baat bi mu wax rek ku dul yàlla mi bind jaam ñi ëpp ma yërmande ci jaam ñi àdduna li mu réyee loolu engagement la mu ne ku dul yàlla mi bind jaam ñi ëpp ma yërmande ci jàmm waaye gis nga ndono wiraasa dafa am solo ndono wiraasa dafa am solo dafa am responsabilité bu tege ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ tubaa daf koo donnaat sëñ o dafa wax ne yaqulu kulluhumu nafsi wa ahmaduna yaqulu ummatihi yarham xayra man rahima loolu mooy lan ñeen ëllëg yowmal xiyaam ci àggee même yonent yi sax woy man la wax nafsi mooy sama bopp nu may def ba mucc waaye nee na kenn mooy taxaw ci kanam yàlla mooy xaddis bu leer sëñ Tuubaa ko ci bayitam naan yàlla yërëmal jaam yi mu yonent yàlla Muhammad sëñ Tuubaa doon naat yonent bi ci yërmaande jooju ndax yomal xiyaam ku fa am dalu mën a lijjanti keneen ku dul yow sax yow jàmbaar sëñ Tuubaa doon naat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yaa malikal mulki yaa man jàll an xawadir irham jami alwara yaa hadiyan rada kon sëñ bi moom jami alwara yooyu sonal doomu aadama yi sax weñ yi lu mu mën a doon rek ci biir jamexal waraa la bokk kon Serigne Saliou bu dikkee taxaw ne kudul yàlla mi bindi jaam ñi ëpp ma yërmande ci jaam ñi kon yërmande jooju moo tax xol yëpp wëlbali Serigne Saliou ngay jàngat Serigne Cheikh mu doon koo xam ne doo tiijaan doo murit doo xaadir doo laayeen xataa sax ba ci chrétien ñëpp bëgg Serigne Saliou lan moo ko waral ngir yërmande ji nekk ci ngir yërmande ji nekk ci jaam ñi yërmande jooju nag mu ëmbal jaam ñi loola waral xol yépp wëlbatiku nag mal ko moom Serigne Saliou xam nga yërmande mënta paase xale mënul dara xamul ci boppam dara mënulul boppam dara dañ koy teete ba mu doon mag saa su doonee mag nag ci lay mën a lijjanti boppam mën a xool addunaam ni mu jege sëñ Saliou nag liggéeyam daf koo tàmbilee ci xale li waxoon ne jox ma ndaw ñi ma def ci ñoom li Serigne Touba doon def ci mag ñi doon te yoyowuma ko ma barkeeloo ko xoolal yërmande ji ak xam gi mën a xayante nit bu fekkoon ne xale xale dañ ko indi ci kër sëñ Salim war a dem xel ko ci yërmandeem ak xam xale ni mbiram tuute doo ñëw rek mu yóbbu la xel ko loolu moom ñi jaar xel ko ñëpp xam nañ ko faaw dana te ay fan ci biir këram gi mu nekk Touba xataa sax ba yéen bokk néeg bu ngeen di fanaan xataa sax bu añ jotee wala yéenay bokk añandoo mbaa ngeen reerandoo xoolal googu dal ak googu xam ni mu yërëme doomu aadama moom Serigne Saliou yërmande ji nag bokk na ci loo wax rek mu tuur ay xéewal gis nga doomu aadama ba xolam laabee jooy ak yërëm doomu adama day yomb waaye koo gis nag xolam dëgër rek yërmande amaana mën naa manqué ci moom moom Serigne Saliou ci biir yërmande gi ak dal googu ndax ku amul yërmande mënoo dal seen seex ak dal googu nga xamante ne dal na ko am na xale boo xamante ne dañ ko indi ci daara ci ñu ko indee ci daara ji suñu borom dogal sëñ Saliou téye ko ci biir këram ñu ko téye noonu ma la ko waxee rek xale bi ñu utal ko benn gorosu biscuit yi di jër deux mille xale bi day jël suba ak ngoon ngoon gi day jël deux ci misaal jërëjëf suba gi mu jël mu calculé ko ne deux yi su ma ko jëlee suba moo ci des mu ñëw jël trois fàtte ko bi mu jëlee mu des benn xale bi dafa gestu sëñ Saliou na ko maam ana sama biscuit bi ma tegoon fii xoole sëñ Saliou bëgg gi mu bëgg xale ak yërmandi ji wàccuwaay wi mu am daraja ji mu am man nga ne koo xamante ne tey jii réew mii nu nekk bokk ni ki ci ëpp tur bi muy dund di wax ak xale bi xale bi ne ko lu man a xew maag yow nekk ci néeg bi te trois a des te fi mu ne ci des sëñ Saliou ne ko maa ngi lay giñal ci yàlla jëluma ko dem bay àgg di giñante ak xale bi ci kaw wàcce boppam looloo waroon xale yi meloon noonu ci moom soo xoolee yërmande jooju itam néewaa na photom boo gis te xale nekkul ci kawam wala xale nekkul ci keesu xaalis yi di fo ku amul yërmande amoo xol bu laab amoo jikko ju rafet xale du la jege mag ñi sax dañ koy natt ci wolof di wax ne koo gis xale di jege rek jikkoom baax koo gis xale di jege rek nee nañ sax day gudd fan loola nag di tax sëriñ tubaa bi mu ñëwee dafa jël mbiram yépp def ko ci ndaw ñi ngir bëgg a defar mag ñi sëñ Saaliw doon loola ci sëñ Touba xoolal tey tey tey tey tey fukki junniy taalibi wala lu ko ëpp sëñ Saliou yor leen doonu yalwaane sëñ Saliou yor leen la ñuy sol moo leen ko yoral la ñuy lekk moo leen ko moo leen moo leen ko yoral te te ñooñe seenum faj ak lépp ñooñee ñëpp sëñ Saliou waxul seeni way jur nangam ngeen ma ci fay loola yërmande la ngir bëgg dimbali jaan ñëpp xale yooyu tey ku ci mokkal alquran siir ko tey jóge fi delluwaat sa kër yaay doon seen imaam doon ku leen di dimbali sa jur bu tollee ci sukuraat yow lay dénk bu génnee àdduna nga di ko ñaanal kon sëñ Saliou dafa ñëw ngir gindi jaam dafa ñëw ngir dimbali àdduna waaye sëñ Saliou dafa ñëw it ngir maanaam doomu aadama yi ci lënk miinu iblis jàpp ngir bëgg noonu sëñ Saliou ngir ngir bëgg koo leeral maanaam sëñ Saliou mission doon lu yomb xoolal tey jii ndakaaru tey dugg fi boo fi duggee tey bari na internat yu fi nekk ña ko yore di jàngale alquran ci njàngale mu wér xattan wa tilawatan ci dongay kër Serigne Saliou lañ bari na imaam yoo xamante ne tey fii ci ndakaaru tey ci biir jàkka yi taalibey Serigne Saliou yoon lu génne xel koom bari na ci ajjuma ñuy def bayaan di leeral nit ñi di tuddi doom Serigne Saliou ci formation Serigne Saliou la kon sëñ Cheikh àdduna sii li fi des loo gis mu baax loxob Serigne Saliou Mbacké ma nga ca loo gis mu baax rek loxob Serigne Saliou Mbacké ma nga ca mooy jëfam ji yërëm ak ak yërmaaneem jaatu jooju Serigne Cheikh ah macha allah eh, kontaan nañu baax sëñ Aydara Sow mu daaru muxti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 rabbi bima yasrahu al-asxaana xad fajaa bijaahi afdali man lillahi xad lajaa rabbi bima yasrahu al-asxaana xad fajaa bijaahi afdali man lillahi xad lajaa hamdi li rabbin karimin la sharika lahu وصدري اليوم نورا ساتعا ملا محمد صلوات الله في أبد علي في إسبي كل بي كلا أدعو إلى الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من بلا ناجيت جل أحواما وكرمني تكريمات وكل من لخن بريا رحمن حبلي جميل خلق رحمة من يغني عن السر من قرآن خرا حكمة المصطفى القيم مفسدة وضرب الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا عاديا رداب يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا حاديا رداب حوت ما قد نحف القلب من درر بجاه أفضل لمن لله قد لجا معوت ما أخذناه القلب من درر بجاه أفضل لمن لله قد لجا معوت ما أخذناه القلب من درر بجاه أفضل لمن لله قد لجا day majiin sang sanci gor wa xabbaan ak njurul njibingal balla ay sayaadaan day majiin sang bi sanci gor wa xabbaan ak njurul njibingal balla ay sayaadaan waaju namu bi di jiin dundum góor tay nga bég ni danaa jiin borom gotog mbuur waaju namu galen bii buur ay ni dinaa borom gotok mbuur kañ ni woon an badru moo di saali woo di donoom tey fi jàmbaar lambu ji ko tëj leseeg poiluur sëriñ saaliw ñépp tëdd di suuf daan nga tey ku fi góor sëriñ saaliw jël nga raaya semmal nga sangi soodaan borom njurul yàlla tabbula ay ndam tafal la ridwaan sëriñ saalimu mbàkke maandu ak tabe ak yiw nga daane mbooleem ñiñ fi daa waxi mbër bàkk naa la yaaram sëriñ saalimu mbàkke bàkku tey su fi yelloon ka xabbaan lan di bàkkati tey dundi tuxyaan salaam ah sëñ Cheikh Ngounda am na solo trop wax dëgg yàlla wala sëñ Saliou sëñ Saliou dafa neex a wax ci ku bëgg lu baax ndax baax dafa mënul génn baax daal baax foo lamb rek mën nga wax ci moom te dadul jeex moo tax ah, wax ci moom day xaw a jafe ndax ah, baaxaay gi yërmande bi yaatu bi passef bi ah, mais xaaral ñu ñëwaat ci sëñ Saliou Seck il faut la ma boolee question yi sax damay ñëw ci sëñ saaliwu Euh, fukki at ak ñaar yi mu dund ak Serigne Touba nan la dundeek moom ndax jot na ko ci miin bu baax ak nan la dundeek njabootu Serigne Touba ak fan la jànge ma booleel ko mu doon benn question. jërëjëf sëñ Saliou fu mu jànge bi ko sëñ Touba dalalee moo ko sëñ Abdou Lahat ak sëñ Soyibu ak sëñ Abdou Samad mu sëñ Touba leen na jox sëñ Amsat Jaxate mu jox leen sëñ Alsaan Jaxate doomi jàmbaar Jaxate la mu leen di jàngal ci Touba dañ daan boole jàng ak liggéey. fii kër Cheikh Béthio nekk sëñ Saliou nee na foofu seeni tool la woon fi ci jant na nee am na koor koo xam ne dañuy woor ba ngoon jot da ngay jàng boole di liggéey nee bu ngoon jotee benn ngëbu baraay ngay doge ak kaasu ndox te nee na booba njaareem njaareem bari na xew loolu sëñ Tuubaa nga fa bari na xéwal loolu te sëñ Tuubaa nga fa ba pare nee na sëñ Tuubaa yëg na coono yi ñuy daj ñoom waaye moom moo ko bëgg noonu loolu nag jàngat am na ci doomi kilifa war naa ñeme tumurànke day tax bu barke bi ñëwee doo ko sàggane waaw dina taxit nga am ngërëmul waajur dina taxit nga xam lu ñuy wute ngërëmul yàlla moo tax mu metti woon lool waaye moo suñ sëñ tubaa minant nañ fukkat ak ñaar yi sëñ tubaa xam daa xam lu rafet te bëgg njaboot tamit bëgg njaboot gi mooy yoonu yàlla wi mu leen teg ay bëgg njaboot du caagi na yor sa doom ngir bañ mu génn kër gi déedéet doom boo ko xamee ne yàlla rek bëgg nga ko waaye doom boo ko réeréyal rek sànq nga ndax yàlla danoo bind wax ni nu innama amwaalukum wa awlaadukum fitna li ngeen gën a bëgg ci na moom fitna la ci yéen alal ak doom tey jii bu sa doom réeroon doo nelaw sa alal lu ci sikk nga am problème kon moom lañ gën a bëgg mais fitna la ci ñun waaw moo tax boo ci góorgóorloo ba am alal jaarale ko fi nga ko war a jaarale nga fexe am njaboot jaarale leen fi mu war a jaar ba ñu am yàlla neen dama lay fay yool bu mag wana laa indoo ajrun azim sëñ Tuubaa daan def buñ buñ buñ jàngee ba ci yàgg mu woo sëñ sëñ Amsatu Jaxate ne ko indil ma ñenn ñi léegi-léegi ñu yóbbu sëñ Blaat mu ànd ak sëñ Alsaan Jaxate doomi sëñ Amsatu sëñ ñu dem fekk sëñ Tuubaa njaareem mm. nekk ak moom bu lëggee mu woo sëñ Saaliw ak sëñ Soñ bu sëñ Saaliw ne woon bi laay àndal mm. mais daa bis boo xam ne dañoo dem yendu xuru Mbàkke ci kër sëñ Bay Jaxate mm. nee na ba ñuy àgg njaareem tàkku sànni suuf la nee na sëñ Tuubaa ñu jul ci soo pare mu ni jàll si leen jàll ci néeg bi nee na mu ni ma fu ngeen yendu ma ne ko xuru Mbàkke kër mbay jaxate nee na mu ni ma muy sa nijaay nga naa ko mbay jaxate sëñ Saliou wanete loolu nee nag ca laa jógee fonk nijaay sëñ Xalil Mbàkke mi ko bind doomi sëñ Musaa Absa la ak soxna moom mi sëñ Saliou nee na sëñ Saliou ko nett li ci làmmiñam daa fekk dafa ànd na koo xam ni mbokkam nee na mu ni ko moom mi boo gisee fonk sama sanga ndax bàyyam sama nijaay ba pare doonoon ku mën a kaf ak ay ay ay mbokkam maanaam di kalante ak ay sëtam di kale ñi sant ndaw di kale ñi sant busa waaye doonoon nag ku civilisé ba pare bari kersa dafa njooloon ca kaw moom sëñ Saliou waaw mboolem doomi sëñ Tuubaa yi mujj sut sëñ sëñ sëñ Fall daana ko wax Saliou njool ak la ko daan woowee moo tax seen diggante noonu diggante bu rafet bari woon kersa nag ba pare buggutoon ko xaye di hmm. moom bi mu nekkee ndaw xawoon na tàng tuuti wala sedd gi moom déedéet moom mi moom tur yi daa wuyu xam ni xe mboolem xeeti mbaax yëpp nga dajale aw yiw yàlla bi muy lim yonent ba pare dañu ñoom ay saalihiina lañu kullun mina saalihiina ñoom ay saalihiina lañu kon sëñ Saliou moom moom zéro faute la mbaax gi tax na doomi Serigne Touba yi da leen defal ab Serigne te nag sëñ Saliou a engagement bi sëñ Touba jël ci moom moom lañu mos a dégg comme ni sama dooma ko war maa ba benn photo sëñ Touba la amoon sëñ Saliou ko ko mayoon daw ko xool lu bari da ko doon rido nee na kenn waru ko tudd ci ay jaaxal lenn ko daan jooyloo boo tuddee sëñ Saliou ci boo tuddee maam Serigne Fall ci wetam wala sëñ Moudoumbe ay yaram ko ñoom tuuru ñooñu ñooñu rek la bëggoon maam Saraye Fall sëñ Mandumbe ak Serigne Touba ñoo daan tur ay rangoñam ak xale bu ñu néewal doole mm-hmm. lii ñooy tur ay rangoñam mën a defar nit nag mm-hmm. diggante mag doomi Serigne Touba yi sëñ Saliou sëñ wax naa la sëñ Fallu tudde na ko doom mm-hmm. daan ko wax Saliou Fat Jaxate ak Saliou Ndiol jumaa yi Touba ji sorol bi 1963 la ko sëñ Fallu indigré le 7 juin keroog bi mu ko indigré dafa ñëpp ñu teew mu ni ana Saliou Fat Jaxate ñu ne ko ñëwagul mu ne bu ñëwut duñu ko indigré ndax daf maa jox ñetti million ca boobu jamono sëñ Saliou boobu cinquante deux ans la am 1915 ni ma benn benn million bi joxel naa ko sëñ Tuubaa ku bëgg lu baax la li ma leer mooy bu ko fekk lu muy dund jumaa ji ko jëppale ko beneen million bi nag maa ko joxe waaye yéen a yéen naa ci mbooleem jullit guy ci jumaa ji waaw beneen million bi ne ko dama ko yéene ñu war a judd sa ginnaaw ci dund fekk fekkuñ sa woote bi xam ne bu ñuy judd dee fekk yow nga jóge fi ñooñu laa ci yéen waale xam ne ku ku judd ginnaaw 68 bi sëñ Fall nelawee yéene la ci jumaa xoolal googu mbaax ak yërmande jooju noonu la meloon nag doomi Serigne Touba yëpp Seydi moom da ko lool Serigne Saliou ba ni woon ci ab la bokk Serigne Souhaïbou nga xam ne daa ñàkkoon jot ba ndax njàngale mi gis ko du yomb waaye daa amoon buntu boo xam ne spécial Serigne Saliou bu seet si fa jaar xaritam la woon sëñ joxoon na joxoon na sëñ Saliou téeméeri donk moom sëñ Souhaïbou waaye loolu li tax mu barkeel mooy ci déwén sa sëñ Saliou jox ko téeméeri bëri koy dugub boole ci fukki xar ak juróom-ñeenti tabaski ak téeméeri ñëw jox ko rakam suñu soxna. macha allah moom yéeme. ku la joxe bu doon ak sëñ kër Touba ndax mën a joxe këram gii sëñ Blaat ko jox ci àll la nekk bari jom nag 1934 la sañ ci daara ca 1915 la gën a jamono waxaa foofu la jom yam 18 ans waaw taxawal daara yi baree bare bari daara yi bis bu yàlla sàkk 2500 kilos la ñuy sóor ci daara bi loolu kenn mësu ko jëfal diine ñaata tonne la 2500 kilos bisu yàlla sàkk fukki junni nit nga mokkal leen alxuraan ay doomi jaamur kenn du feebar ba nga ni nag yónni ay waajur mu faj ko mooy faj mu wut médecin yi di jënd garab yi ci xaalisam kenn du moom maanaam li mu jëfal lislaam ci ay doomi jaamur biir Tuubaa jumaa yi baree bari moo ko àggale tabax ay jàkk yu bari koñ boo dem doo fekk doo dee fa gis jumaa ju naan sëñ Saliou ko def yóbbu na ay nit ñu bare bari ñu tukki yóbbu na ay nit ñu bare bare bari ñu aji màkk ay daara yi alxuraan ñu bare bari moo ko def Touba dapare pare bëgg nag Touba doon dëkk boo xam ni benn dëkk du ko gën lu moom def ko dinaa ci ñëw bu may lim lim lim réalisé biir Touba incha allah dinaa ci ñëw wax. mais balaa nga ñëw foofu dama bëgg euh, ci diggante li ngay wax sëñ Saliou ndax moom ak sëñ tubaa ku tedd ki sëñ Saliou bi bi ku tedd ki di fi jóge ci saayir ndax fekk na mu mokkal alxuraan wala mu bind kaamil wan ko boo mokkal alxuraan mi ngi bind kaamil ba toll ci wama muhammadun ila rasulun xadda xalat mi xam nee na ci lañ ko jàngati guddi googu ñu ngi ci daara ñoom moom ñoo seen laaj ñëpp ñoo ngi ci daara seen sot jaxate seen kaamil ya sëñ Mourou Moussa bu mu jël moom lañu ko jox moom lañu ko jébbal waaye mu taxaw leen loolu moom tamit yóbbu leen tundoo di ñu jàngi xam-xam ki sëñ Muxtaar Jeng ca tundoo di fa jàngi xam-xam am xam-xam loolu géeju ci wàllu xam-xamu géographie yu tubaab di ko géographie la jàngoon boo tegloon fii ay sièges yu bare bare bari mu ñëw xool ko dangay xool tegle bi rek ne la nangam ñëw New moom mu ngi foo jógee nga ne ko Amérique mu ndax garab sàngam ma nga fay am ba tey ah a def mu ni damaa jàng moo tax ma xam ko nga xam ne xam na dëkk bu ne xeeti garab yi war a sax nuñ mel ndax xam-xam bu bari waaye musu koo dund sëriñ bi lay dund sëriñ bi rek lay dund mus nay dem di li tax nga xam ne intellectuel la mooy boo génnee ci daaraam xaar ba mu gërëm la ndax daan wax ni sama kër gi ku fi ñëw sàllaaw ni ma bëgg nga mel ko duñ ko mel ba pare kenn du la fi dóorub yar ndax sama jikkoo lay defar nee nit boo ko defar da da ngay wàcc sa bopp mel ni ba mel ni moom mu tax ko defar dafa defan benn ku mu gërëm da lay bindal këyit boo xam ni comme daara ji yaa fi di jàng di bay di nga xam ci mbay dara foo tukki ci réew mi dañu xam diw ab baykat la nga di nga mën boo foo tàll këyit yi a jël foo mën a dem ci àdduna bi léegi nag mu dem di lijjanti këyit yi communauté rurale bu Diourbel ki koy xoolal kayit yi ni ko noo tudd mu ne ko Saliou Mbacké waaye fi mu teg sëñ Tuubaa rek ci war ma sa wajuru jigéen mu ne ko fa Jaxate sa bàyyi nu mu tudd mu ne kooku ne daal di koy bàyyi foofu oh. ñëw Tuubaa ko waaw ndax war ma ñu am sëñ Tuubaa daana wax ni moom kooku fenn lañ ko war a tudde boo demee ci géej nar faa lab amoon lu la dimbali nee na jar na woow ci waaye benn yoon sax doy na ne léeg nga gis nit ne léeg-léeg gis nit mu yées ci moro moromam lool nga xam ne day day ku manqué lay doon daal ci ñi muy ne day tudd sëñ Tuubaa ci lu ko jarul xam ne ñoo xam lu jug ñu waatee sëñ Tuubaa dañu ko def doomi bàjjen mm-hmm. nee na kooku ku xaye di lay mm-hmm. moo tax daa bëggoon ko ku way moom bëggutoon ku xaye di ba pare dafa bëggoon ko silwisé ba pare bëggutoon ku daanu kate toog ci wetam di wax waxi daanu mm-hmm. yooyu ba pare mu bari woon yitte lool dawul xool fi ci àdduna yitte ju kawe la daan xalaat moom di ko def moo tax boo musaan ñëw ci moom di ñaan dara dalay dala cee tegal lu gën a rëy loola ngir daa bëgg nit ki ba pare doonoon ku diib nag ku tey yàkkamtiwuloon dina waaj benn biir ay at door ko def ngir xool nu mu cee ba pare ba pare boo ñëwee ci moom fekk mu bari ay milliards lool waaye yëgu ko boo waxee mu ne alal jii sëñ Tuubaa dañ ko bindee dara du ci du ci bëgg a dara ba pare daa meloon comme sëñ Tuubaa dafa ñaari xaalis sëñ Tuubaa daan suul xaalis bi ca njaareen kenn daw ko def lu jëlul xaalis bari di ko suul lu tax mu ne ñu ko fi indi dañ ko tiraande indi ko fi te xaalis bi mu nekk ci kër gi amulu fi njariñ kër gi ca kooku nekk di nga dem sawara kenn waru ko jëfandikoo nañu dem tuuri ko loolu sëñ Tuubaa rek ko daan def sëñ Saliou dafa yoroon ñaari ña am na xaalis boo xam ne keesu Sëriñ tubaa gi lay dugg xaalis bi moom lay dundal donga yi ci lay dund moom li muy dundal donga yi xaalis bi ne fa mu ko teg ku ko jël du la ko ndax am na nit ku mos a jóge Ndakaaru xam naa ko baax ñëw di dem di yóbbu doomam Tuubaa bi mu ñëwee ba Tuubaa xaalisam cinq mille a ci des ci amul lu mu siyaaree sëñ Saliou mu ne su ma ko siyaaree xam naa bu ñu ñibbi du ñu paas mag gi ni ko siyaaree ko rek bu ñu génnee naa di jënti paas fi ñu for bi ñëwee jox ko sëñ Saliou sëñ Saliou laalu ko ba tey dañu ko tegal noonu mu teg ko ci kanam tuuti rek ñu dégg benn jigéen buy yuux ci buntu kër ga daal ni ko bàyyi bi mu ñëwee dañu ko a mbàkke len ma fii ni sama borom kër moo nga ba Europe yónnee laa xam naa fa wadd sëñ Saliou kaay jël mi ngi nii daal di yóbbu ñooñee ci nekk teral leen ba ngoon jot mu jox leen alal ju baree bari ni leen lu ngeen moomut di leen ko fa bàyyi loolu na da ko waaw xam nga sëñ Tuubaa fi ne li muy baax baax ak karaama yi nga dégg yëpp nee na musuma wane baatin sëñ Tuubaa nee na li ngeen gis lépp saayir lu juma yàlla jox rek waaye sama baatin xajul fii sëñ nag moom mbaax gi daa tax ba daanaka daawul yëgul woon boppam xam nga ku mën a tafax xale yu ndaw ba pare dafa am benn benn affaire bu mu wax boo xam ñu bari dañ cee bàyyiwul xel mooy jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëñ Tuubaa defoon ca mag ña sama classe gi nag dañ koy firee donte yelloo ma ko barkeeloo ko déedéet waxul loolu de xam nga doomi Sëriñ Tuubaa lépp la yelloo rawat na lu baax waaye dañ ñi ma koy def ci ñoom donte ñoom yelloowuñu ko ma barkeeloo ko ci ñoom waaw xam nga gone nekk Dakar maanaam fu ne mu dugg ay mbokkam xëy bis ndax nañ koy bexal ko ndax mu defal kooku dañ ko dimbali waaye yelloowu ko waaw lay wax nag moo léegi ñaari xale yi dañoo saagante ci daara ji daana wax ni xale mën nga koo yar te doo ko dóor xam nga ne alxuraan koo ko jàngal di nga ko dóor waaye yërmande Sëriñ Saliou tax na bëggutoon ko dóor xale daana wax ni boo jàngal alxuraan dóor ko nee na yaa ngi mel ni ko daw ca xare ñu fekk xare nga ñu doole ndax yër ndax yërmande waaw faaw mënut a ñàkk waaye yërmandeem lay waxe moom ak mbaax gi bëggul ku xale bëggul ku bëggul ku xor ñeneen ñi léegi ñaari xale yi dañoo kenn ki saaga morom ji moo tax moom daaraam da nga daan ñëw gis xale yi taxaw di saaga ci wetam nga fekk jikkoom la leen di yare maanaam ñoom bu ñu fi yàggee diñ gis ne Sëñ Saliou duñu gis mu saaga duñu gis mu wax lu ñaaw bu yàggee dañu am kersa mel def ni moom waaye du leen gëdd du leen def dara parce que xale moomeelu yàlla la léegi nag ndaw si xale bi ñëw ni ko diw def maa saaga sëñ Saliou ni ko baalu ko aw saaga du tax waa xale bi dëgër bopp sëñ Saliou dañu ko léegi war ma fi la saaga du tax nga fomp ma ko ci garab boobu xale ñu ko mbàkk jégal naa ko léegi kooku defu ko mag ci sensé maanaam foofu lay mën a jugal ku ko tooñee mu mën laa jégal ci dug wàññi dara waaw moom kenn du sëñ Saliou kontaan nañu baax euh, sëñ Saliou Seck waxtaan mi leer na te am na solo bu baax a baax sëñ Aïdara sëñ Aïdara Sow dama bëgg na nga ñëwoon ci diggante sëñ Saliou ak xam-xam sëñ Saliou ak diine sëñ Saliou ak Pastef euh, ndax gis nañ euh, jamono bi mu fi nekk boobu tamit euh, géopolitique bi xawoon na ñàng ñii dooni mag daanaka retraité gun woon ñi ngi woon ak seen force ak seen i pexe ak lépp ñëpp war ko te musuñoo gis tuuma bu tegee ci kawam boo xam ne que ne mën na yàq dara ci image ci mën na wàññi dara ci lim jiite woon waaw yërmande daal ba xam ne que jàndiwul kenn te lim bëggoon mi ko doon ci diine sëñ Saliou xam-xam ak diine yëpp. jërëjëf macha allah sëñ Saliou li mu indiwaat am na solo trop sëñ Saliou mooy xam-xam mooy xam-xam way juróom Serigne Touba dafa wax ne xafistuma siina anit dafa tiri fala takkun bi xidmati an an fatiri Serigne Touba xam-xam yu nekkul ci ay téere kon yow sama taalibe bul jóg ci tayeel di ma liggéey ma liggéeyal mu dellu waxaan ne itam wa saytukum yaa jumlata tulaabi bi talabil ilmi mahal adabi sëñ Saliou mooy xam-xam xam nga boo xoolee sëñ Saliou junj na ko sëñ Saliou Seck sëriñ Saliou Mbacke fi mu jaar ci xam mënu faa jaar te doo am xam-xam sëñ Touba jox ko sëñ Amsatu Jaxate sëñ Alsan jàngal leen dégg nga ko ni mu ko waxee ci wàllum jàngal ku ñu wax sëñ Mouhamadou Sow moo ko jàngal almul fëlëb wàllu géographie muy géographie moom Serigne Saliou yemu ci woon ak ku yàlla bind mooy nii ko Serigne Saliou junje mu doonoon borom xam-xam bu rëy daana wax ne sant nañ yàlla ndax ca maam Adama ba fii may waxee ak yàlla bindu ci ku ma ci am xel man Saliou nee yàlla bindul koo xam ne man ñee naa ko ci am xel. Cheikh Béthio Thioune mas naa jóge France ñëw naan ko Mbàkke Tour SLD nit ñi dañuy bañ ko siyaare Serigne te da ngay gis ñu di ko siyaare di ko wër. Cheikh Béthio tàmbali wax mu ne ndax gën ma laa xam Touré Sène wax kañ kañ ko defal ka ko defar ñaata bulon ko téye ñaata at lay amaat Cheikh Béthio daanu jël na ko ah Mbàkke yaa ma ko gën a xam de kon nga xamante ne mboolem lu nit di jàng-jàng na ko toog doon savant te nii néewi wax moom Serigne Saliou doon milliardaire te boo dikkee xool ko a mbubam ba am da koy xeeb ci wàllu sol yi ni moom Serigne waaye li ñuy wax ak tawaado maanaam mu doon koo xamante ne ku toroxlu la woon mooy woyof ci suuf te diis ci biir borom loolu moo doon jikkoy Serigne Saliou Mbacké silwise gi ak xam gi boppam ak xam gi àdduna loolu def ko jële ci njàngaleem Serigne Touba xam-xam bu bari bi itam ci wàllu géographie ni ma la ko waxee rek jublu na xiblaak jublu wut xiblaak lii mooy na xiblaak jublu na xibla loolu yàlla da ko ci may lu mu ci mayul kenn seeti na sëñ Abdoulaye sëñ Abdoulaye liggéey jàkka liggéey jàkka ba toll ci jàkka ji ñu war ko ubbi mu ñëw ni Serigne damaa bëggoon nga ñëw xoolal ma sama jàkka ji damaa toll ci war ko ubbi Serigne Saliou xool ko ba dinaa ko ne ko ah sàllaaw day xaw naa mooy xibla bu defoon nii rek dana jàkkaarloo Kaaba ga Sëñ Abdou Lahad dafa nangu caabi ci daan ne nañ ko tëjlu li feek tëjuñu ko defaraat ko kenn dootu fi julli ci loolu xam-xam bu rëy te léegi Sëñ Saliou boo xoolee melokaanam image yi li la foto yi lu woon danga naan maanam alxuraan xam-xamu diine rek te mboolem lu doomu aadama di jànk maanaam waa Iran 1993 ñëwoon nañ président iranien bi moo ñëwoon ci moom keroog bi muy wax ak Serigne ci làkk perse la doon wax ak waaye bi mu waxee ci làkk perse ba pare amul ku ko traduire Serigne Saliou moo ko doon tontu di ko tontu baat yoo xamante ne yu luxa la ci ñoom te moom moom lañ nàmp te xamuñu lii Serigne Saliou di wax fa kullu man sa'alani fa li jawaab xablu wala tujaadilu ahlil kitaab sëñ Tuubaa nee na boo ma laajee bala ngaa laaj tontu baa ngi xaar di la tege loolu mënu ko doon ci way juram xam-xamam yëmutu woon nag ku yàlla bind ci wàllu xam-xam xam moo tax xoolal xel comme tey ni mu ko tracé fukki daara juróom daara ju nekk rawanteeg sa morom quinze kilomètres mu teg ko ci am xelam teg ko ci xam-xamam ba maanaam fukki daara yooyu ak juróom ku fa génne rek doon boroom xam-xam da ngay wax ne tey bu fekkoon dañuy xool ni ki ëpp lu mu jàngale ci Sénégal gii ku ëpp ñu mu defee ci Sénégal Serigne Saliou ngay jël te léegi xam-xam boobu yàqalu ko taalibe gi xoolal bi fi sëñ Mourou Moustapha nekkee bi fi sëñ Mourou nekkee mu doon rakkam doonu taalibeem bi sëñ Mourou Moustapha defar jumaa ji ñaari gaal la def jii gaal gi lu mu bay defal ci xaalisu boppam beneen gaal gi lu ko taalibe yi indi mu jox ci di ko yóbbul sëñ mu Moustapha Mbacké wax na ko léegi ci 18 ans la sañ ci daara daara jooju noonu benn doomu gerte daawu ko ci lekk moom Serigne Saliou wax nañ ne benn bis la masa lekk ci mbayam te boobu ñi ko doon indi doon doon waxtaane sëñ Tuubaa mu jël ci ne naa ci barkeelu ngir tëri sëñ Tuubaa bi ma dégg ngeen tiim ko di waxtaane loolu ca la def moom Serigne Saliou ngir xam-xamam bu bari ay ay mbokkam nag doomu aadama bu ne diwa baax dañ naan ndax mbokk yaa ko wax Serigne Saliou ay mbokkam ñoo ko seereelu mbaaxam sëñ Fallou ñaareelu doomam moo di sëñ Alaaji Baara Mbakke mi fi nekkoon xalifa sëñ Fallou jël na doomam jooju jox ko Serigne Saliou mu dawalal ko oto la doon safóoram wow ci kongo la yam ñoo bokk Serigne Touba waaye xoolal xam gi mu xam kan mooy Serigne Saliou a xam ne lum teg loxo moo gën lum tegul loxo Serigne Saliou daana wax ne sàllaahu day lu ma dégg moo gën lu ma déggul sàllaahu lu ma dégg moo gën lu ma déggul Serigne Bara keroog bi juróom-ñaari ati motee sëñ Saliou di ko yeewi dana ko kaay ma ñaanal la nga dellu waxal loo bëgg sëñ Bara ci xel mu rëy ma ne ko Mbàkke yaa ma dàq tànn tànnal ma yaa ma dàq Serigne Saliou def ne sëñ baaram sëñ Fallou xilaaf ak sëñ Touba buy ñëw ci loxo yi yi yal nañ ci njëkk a jot yàlla na ci googa ñaan nangu na de ku njëkk a wuutu ci sëti sëñ Touba yi ku dul sëñ baaram sëñ Fallou bi mu demee ci Alaaji Fallou Mbàkke ba wax ko ko ne ko sama wayjur sëñ Saliou yeewee na ma waaye nee ma xilaa gi buy ñëw ci loxo sët yi yàlla nañ njëkk doon yow sëñ Fall ne ko mbaa sikki sàkkoo wooko mu ne ko déedéet sikki sàkkoo ma ko sëñ Fall ne ko baara mu ne ko Mbàkke mu ne ko ndax xam nga Serigne Saliou doon mu ne ko xawma ko mu ne ko Serigne Saliou am kuuf la mu ne ko moom Mbàkke lu rim kuuf mu ne ko am kuuf mooy koo xamante ne lu làmb ji xumb-xumb ak bëri coow du yëkkati loxoom du samp ndëndëm te balaa ngoon jot mu ubb làmb ji dem ñibbi këram koo koy Serigne Saliou Mbàkke Alaaji Fàllu Mbàkke borom baatin bu rëy ba moo ko seereel Serigne Saliou léegi nag nga wax lu am solo mooy li nga ne wàllu diine Serigne Saliou léppam diine la bi nga xamante ne toog na mu doon koo xamante ne mooy sukkandikukaay bi mooy célébé yoon bi ñëpp di ñëw ci moom politiciens yi daw xëpp ci kawam àdduna daw xëpp ci kawam dalee na tontu tontu ba mooy tontu gor mooy tontu lislaam lu dul diine aw ma cig defar aw ma cig yàqu. xoolee xilaaf ak Serigne Saliou coow am yëpp déggoo Serigne Saliou wax ci ku ñëw lam la war a ñaanal ci diggante jullit ak morom ja mu def ko ku ñëw lam la war a ñaanal ci diggante mbokk ki nga bokkal réew mi ak ki nga bokkal diine ji mu ñaanal la. xoolal sëñ Saliou ni mu dégg alquran lakum diinukum waliyad diin chrétiens yi nekkoon Mbàkke seen barab booba bañ ko bëggee nangu ci ñoom ñu def fa lañ fay def di fa nekk di jaamu seen borom bañ ko bëggee nangu sëñ Saliou da koo jënd ci xaalis bàyyi ba yëfi ne teg sëñ Saliou delloo leen ko ñu def ca lan cay def ngir maandu ak rafetal dëkk rafetal ak diine ndax ñoom donte bokkunu itam ñii di jullit ñii di ay chrétien waaye noo bokk jëm ci yàlla te ñoom it ci seenub yonent itam yàllaa ko yónni woon rafetal googu sëriñ Saliou doon def ci diggante nit ak moroomam yoroon ci ko ju rafet na sëñ bi wax na ko léegi daana dox ba ci yàgg romb kenn muy luubal ci xaalis waaye daf naan teg ci jikko ju rafet yi moom Serigne Saliou ba nga xamante ne kooku jël na ba jël li muy dem te kooku day luubal sëñ Saliou doo ko dem bëggul kooka gis ko di am jafe-jafe wala kooka gis ko addunaam di yàqu loolu du jikko ju rafet sëñ Touba daf ko daan def ci njaareem fekk nit muy def naka su dul noonu sëñ bi bàyyi ba kooka dem bu ëllëgee mu woo leen ne leen nangam ko koy def ba ko nangam day tax a dem sawara nangam dafa arab ndax wax dafa war ci moom dafa am benn woykatu pël bu wax ne saa andi foofu déjji foofu bonni foofu boo xamee lépp noppi lépp yàq nga lépp kilifa warut a noppi kilifa warut a nag daawul weer doomu aadama daawul yàq nit daawul xas nit daawul boddi nit waaye boo defee naka sudul noonu beneen jotaay dana toog mu wax wax joo xamante ne da nga xam ne yaa moom wax ji ba nga jël ci sa te loolu mooy jikkoy yaaram loolu mooy jikkoy nitug yàlla waaye mooy loolu mooy jikkoy ku baax xoolal itam soo xoolee alal jin ko doon indil sëriñ Saliou bokk na nañu njëkk a jox addiyee sëñ Tuubaa ci njaareem ci juróom-ñaari at la mat ñëw ci mag ñi siyaare ko jox ko dërëmu ngurtu sëñ Saliou dërëm biñ ko jox daa dox ba fekk sëñ Tuubaa mu toog mu jox ko ci juróom-ñaari at ku mokkalugul alxuraan kooku dañuy wax ne itam addiyee wax dëgg yàlla warula la nag Serigne Tuubaa ne ko maa ngi jégalu sàllawlu gi ah da ngay joxe addiya maa ngi ñaan yàlla na barkeel li mu nangu ci xilaafam benn xilaafa nangu ko moom sëñ Saliou kon dërëm booba barkeel na moom sëriñ Saliou màggalu Tuubaa gi yàlla defal ko ci tawféex histoire nettali na bokk na ci njëkk jël ab gàtt jox sëriñ Tuubaa histoire nettali na ko mbokk mu ñu wax soxna jaxate jaay mayoon ko am mbortu bi sëñ Saliou bi sëñ Tuubaa woowee sëñ Balla Faali Jang jox ko ndigalul màggal gi ci la suñ boroom dogal sëñ Saliou ne sama mburtu ma ma dencoon jël leen ngeen joxal ma ko sëñ Touba ma barkeeloo ko ci màggal gi tawféex ji mu am ci sëñ Touba du yéeme la maam Cheikh Ibrahima Fall baaxoo woon ne di jox ci waa kër sëñ bi di leen jox addiya waaye bu sëñ Saliou masaan ñëw moom bu ma seen jox benn day joxe ñetti dërëm jox ko sëñ Saliou daal di wax ne keroog ba may jébbali sëñ Touba ca Mbàkke Kajoor la ma doon yëg ca dënnu baayam ba lool daa yëg ci dënnu Serigne Saliou mi doonte ndaw la loolu la Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muriid dina wax boroomu la moom sëñ Saliou boromub cër la ku cëroo waaye jikko ji ak mbaax gi moo nëbb lu nekk ci moom benn woykat arab da ko wax ne ko ab kii ala xalifatil xadimi abil masakini ma yatimi loolu doy na sëkk abil masakini mahal yatimi bàyyu jirim yi maanaam ki nga xamante ne mooy bàyyu jirim yi mooy Serigne Saliou jikko yi moom dañ ko seddoo parce que sëñ Saliou da cee bëgg a wax te da nga ci bëgg a wax kon da ngay jël benn pàcc mu jël benn pàcc ñamal ci jikko yi doole jikko ji mooy ni mu def ba mboolem ci kër sëriñ Touba yi foofa dem da fa fekk am Serigne Saliou jikko ju rafet bokk na ci moom Serigne Saliou tudd na léegi Serigne Sohaïbou Serigne Abdou Saman Mbacké moom sëñ Sohaïbou yàlla na fi yàgg loolu te wér nee na sëñ Abdoul Khadir daf ko yónni ne ko fii ak ba tudd bis danaa ñëw gane si sëñ Saliou nee na maa ngi fekk sëñ Saliou tawati sedd ji ko daan dal dal ko ba loxo bi mënu ko yëkkati nee na maa ngi ko ñeewante bi ma ñëwee nuyu ma ko loxo dama koo nuyu rek ñu jàmmante man ko sëñ Abdou Khadir day moo ma yónni nee na bi sàngam dana ñëw gane si la sëñ Saliou ne ko ndokk alhamdulilah ndax xam naa ne balaa booba danaa tane ndax comme nee na dana ma seet si dana ma fekk ma tane keroog bi mu delloo ci sëñ Abdou Khadir wax ko ko sëñ Abdou Khadir dana ko sikkuwul bu ma jullee fajar naa ci def dog yàlla yëkkati ko laataa mu di ko gane yàlla yëkkati na ko tane na ca tawatam jooja loolu jikko ju rafet la jikko ju rafet la ci biiri bokkam jikko ju rafet rek nit du def li ñuy wax sàmba àllaar baax ci àll bi bon ci sa biir i bokk sëriñ Saliou nag mbaax gi daf ko tàmbali ci biir biiri bokkam doog ko yóbbu nag ci li nga xamante ne moo di àll bi sëñ Moussa Ka ba muy tagg sëñ waa daf ne ko defar nga say bokk defar nga ay jàmbur ba ñëpp jag nga jàpp saw njàmbur wajahal jamihal ixwati fii nasabi wax wajahal jamihal ixwati wa nasabi fii rahmatin yow mastidaa di nasabi boobu laa soxla woon sëñ Tuubaa ba muy ñaan ay mbokkam ak askanam la ñaanal yàlla musal leen ca tartari yowmal xiyaam ëllëg yowmal xiyaam coono ya kon jikko ju rafet jooju nga xamante ne yàlla moom la mooñaale woon Serigne Saliou ci jikko ji bokk na ci juboo gim mu juboo woon ak sëñ Abdul Ahad Serigne Saliou sëñ Cheikh Jaxate moom moo ko daan yenn li ñuy wax wat benn bis mu jaar kër sëñ Cheikh Jaxate di fa yenneeku fekk fa soxna May kër sëñ seex Jaxate la doon liggéeyale yàlla bi sëñ Saaliw kiiwee ba pare daan nekk di ko tooñ ne ko ah soxna May xanaa añ amu fi soxna May dugg ci biir na sëñ Seex Jaxate sëñ Saaliw mooy laaj añ mu ne ko añ bi fi nekk añub sëñ Abdul Ahad la waaye comme sëñ Saaliw ko laaj moo ko moom sëñ Saaliw daal di barkeelu ca añ ba tëjaat ko dellu sëñ Abdulaat bi mu ñëwee mu ne ko ah sa waa ji de sëñ Saaliw moo fi jaaroon ba moo ci barkeelu sëñ Abdulaat dindi juróom fukki junni deux cent cinquante mille jox ko soxna May ne ne ko sant naa la yow mi tax ma lekk desu doomi sëñ Tuubaa di sëriñ Saaliw Mbàkke loolu du jubóo gu rafet loolu du jikko ju rafet te na ñooñ bu ñëwoon ana sama añ bu tàng jër indi fa problème bu kenn xamul fu muy doon moo tax euh, baax rek am solo moo am solo sëñ Saliou nag mbooleem liy tudd mbaax soo ko dee wër dafa daje ci moom mbooleem liy tudd mbaax soo ko dee wër wala fi dañuy wax ne tàkk takk ba ba mu jàppanteeg xadd ba borom néeg ba yëmu ci dara sëriñ Saliou xool ko bi muy dund ñaata bis nga daan gis tuubal leen yàlla bi muy dund ci zaahir wàccee leen alquran toggu leen ay ñam ngir tuubale ko yàlla balaa yi doon seen muy ñëw ci ñun ndax jëmmi balaa yooyu noonu tey jii tey bu dutoon ku mel ni Serigne Saliou ndax du wàcc ci sunu kaw kon nag tàkk-tàkk ba ba muy jàppante xadd ba borom néeg ba yëgu ca dara waaye nag lanu ci musal Serigne Saliou la ak ay jikkoom ak wax gi mu doon wax boromam tabaraka wa taala kon jikko yi daal rafet na juddu bi rafet na waaye itam doon na nit koo xamante ne ku marqué jamonoom li tax mu marke jamono mooy ndaw ñi bu ñu bëggee liggéeyu sëriñ Touba sëñ Saliou moo tax bu ñu jeexee ci liggéey Serigne Touba sëñ Saliou moo tax wax na ko léegi boo masaan tudd Serigne Mandoumbe mu jooy boo masaan tudd Cheikh Ibra Fall mu jooy waa Daarul Mooti daayira bu ma xam ci nekkuk Serigne Cheikh dem nañ di ko siyaare sëñ Cheikh Khady moo bind ci loxol boppam wala boog moo bind ci loxol boppam joxe ko xamal ko ne ko sëñ Cheikh Khady waa daayira nangam ñoo ñëw di la siyaare sëñ Saliou keroog bi mu jotee ci lettre bi moom Serigne Saliou bi mu gisee ne waa daarul moxti ñooñu bi mu liiyee lettre bi rongo ñi dafa tuuru keroog mbooloo ma fa nekk ñëpp a maanaam ngir rek turu borom daarul moxti wi nu tuddu jóge waa daarul moxti ñiir siyaare si ko moom muy doomi Serigne Touba Xaadimu Rasuul bëggoon Serigne tubaa bëggoon lu bokk ci moom lool lool lool lool lool moom Serigne Saliou kon daal jëmm la joo xamante ne jikko ja baax na jikko ja rafet na juddu ba rafet na waaye ragal yàlla gi nag dafa gën a kawe lépp moom Serigne Saliou sëñ Cheikh maanaam daal kon sëñ Saliou mooy koo xam ne que dina neex a wax ci moom dina naqare wax ci moom ndax foo làmb ci lu baax daj ko te boo bëggee tudd lépp doo fi jóge kon sëñ Saliou kenn la sëñ Cheikh Ngouda ñëwaat caw yow sànq gis naa la ngay euh, nooy participer kon même xasida mais tamit yow di mën a wax ci sëñ Saliou lu bu dee am nga ci loo ci mën a barkeeloo tamit ñu ñëw ak xasida yi waaw loo wax ci sëñ Saliou baax na jataay sëñ Saliou la waxal ba doyal te sa télé nga nekk Tektal TV lu baax a ñu soxal nu wax ba jeex ndax li ñuy wax moom duñ ko doyal ndax ku ted ki ni wax na dun doyal fi nekk man maa ngi tàng gisoo heure bi da fekk kilim baa ngi tàkk ak yëpp mais maa ngi mel ne kuy soog a tàmbali ndax sentir li ma nekk daal. ni ko waxee rek suñu Sadio di eh, guy yokk mar la ndax képp ku jamonante moom rek lu gàtt gàtt war ngaa mën a am loo wax ci moom waaye nag booy xool jotaay bi tey. ñaar ñi nga xam ni ñoo ko seq muy sëñ Saaliw ak sëñ ñoo xam ni li ñuy dañoo jamono fekkee jamono ji jamono yi sëñ Saaliw nekkee fii xam naa ni ñuy waxee ci moom it buñ yarawut ci daara yi jigéen nañ daara yi ndax li ñuy wax lu ñu xam la sëñ Saaliw nag ku mu jamonoonteel rek foo mën a bokkoo rek jariñ na la. parce que li lay war ne li wax lu xam la dëgg dafa neex a wax boo koy wax kii day wax fii li kii wax kii mi ngi koy témoin bu doon Euh, bu xamuñu li di wax dañuy mel ne opposition pouvoir kii jëm nii kii génne mais ñoom ñaar ñëpp boo xoolee ànduñu gëj nañ gisante xam naa ci la ma njort waaw te gis nga biñ ñëwee tamit temps bu nu waxtaan avant ñuy commencé bariwul te gis nga ni déggoo ci waxtaan li kii di wax la kee di àggale li kii di wax la kee di jëmaat. wallaay xam naa ne daal moom man xam nga comme Baye Fall laa mm-hmm. xam naa ne ku bëggoon Seex Ibra googu bi bi ko bi ko Sëñ Saaliw wax. Mm-hmm. sama xel ci sama turandoo sëñ Cheikh Ngunda euh, demoon fa bi mu demee siyaare sëñ bi ndax moom jamono yooyu ko fi nekkal sëñ Tuubaa rek ci yow lay jokk jamono yooyu ci sëñ Saaliw la jokk da ko di ko liggéeyal waaye daa am bis ndeysaan mu dem fa bi mu demee nuyoo moom bañ dalal ko sëñ bi sëñ sëñ Saaliw saw ñëw ci bi ñuy waxtaan li ma ci amal importance rek mooy sëñ bi li mu ko wax ci fonk gi maam Cheikh Ibra maa dafa toog ba mu yàgg ni saw ko saaliw ndax xam ne bu ma ko mënoon a amaat sama baay Cheikh la laa koy tuddee maanaam loolu wax ju xóot la yoo xam ni xam na ni ndaysaan euh, xëy na yéeneem moo doon mu tuddee maam Cheikh Ibrahima doom mu ne mu ni ndax xam su ma ko mënoon a amaat sama baay Cheikh Ibrahima laa koy tuddee am na bisit sëñ Modou Aminta doon ko bi mu génnoon dugg ci benn saal te foofa dafa am photo boo xam ne photo Cheikh Ibrahima bu ñu fa tegoon la ko fekkee sax moo ma ko nettali nga xam dañoo jékki rek gis sëñ bi fi mu toog muy tuuri xéewal rek te te dëkk te xamuñu woon lu ko waral ndeke photo bi mu jàkkaarloo moom la mënta xooñ te nangoo ñu tuuruut loolu nag day wane ni rek moom jàmbaaru maam Cheikh Ibrahima Fall ci kër am na ay image yu am euh, yërmande nag jeexit ci sama digg ak moom mm. mooy dafa am 2007 euh, foog naa ci la génn jamono boobu xëy na sama as demewul noonu hmm. sëñ bi war a dem Afrique di Sud hmm. bëgg maa yóbbaale foofu ndax hmm, boobu jóge naa ci daara ji te dafa doon soxla ma koy gunge sëñ Cheikh Ngunda waaw ah. ah, moom lañ ci daara ji Poroxaan comme sama loxo ki yoon ci wàllu bind rafet na ci mu bindal bu soxlaam bind ak di ko doxalee kii itte jooju nag mu ñëwoon ci sëñ Saliou fekk damaa ñaan visa ñu ni kii xale na na wuti autorisation parentale ak yooyu léegi bi ma demee wut ko taxul mu kii ñu àndoon nag ci sëñ Saliou mu wax baara dem ni ko moom de sama doom la may bëgg bu may génn di ko xaw kii baara ni ko demal wax ko sëñ moom ak sëñ Saliou ak baara moom mën a fekk ñaanal nañu bañ jug moom sëñ Saliou sëñ bi demaat sëñ bi waxee jug rek sëñ Saliou taxaw ma taxaw fi ma taxaw comme ni ma jàkkaarloo yow maanaam bu ma xoolee bët yi day doon façon xeetu bët yu day waar bu ma xoolee rek man bu ma ko xoolee sëgg mooy bu ma xoolee sëgg loolu du ma ko fàtte daal def nañ ko ñetti yoon waaye gëm naa ni lam doon def ci xool boobu la ko doon xool waaw lam doon def ci xool ba la ko doon wallaay lancé yoon woowu ndeke xam naa xool ba sax man naa am ab la bi bi ma demee dugal visa dafa jàppandi ma ànd ak bi dem te bés foofu lañ ñu waxee ni noppalu ndeysaan waaw loolu dafa dafa ki yoon ci sëñ bi nga xam man sama séjour matut mhm. sëñ bi dafa toog daggal ñu daggal mi billet ma ñëw keroog ñetti fan lañ ci teg rek ma ñibbi si bokk ci organisation bi biir kër mag moom suñ si di muxtaar bi ñëw mhm. foofu keroog fa la ci laa ko njëkk a gis fa la ma fekk waaw mu doon koo xam ni mhm. ak dundam yëpp dafa mar dafa dafa dafa marqué doomu waaye bi mu génnee jamonoot euh, day mel ni ku fi jugut gannaawam li mu defar damaa jàpp ni sax mu ëpp li mu ci teewam ndax gannaawam daal gis naa ni ndaw ñi def na ci ñoom jeexital eh, koo ci gis da gis xale boo xam ne fukki at ak juróom lay am waaye boo gisee jàpp ni magum juróom-ñaar fukki at la ndax demuk siñ saa def na ci moom jeexital fu toll itteem mooy alxuraan mooy xasaay mooy liggéeyal sëñ Tuubaa te loolu wóor na ma ni gannaaw sëñ Saaliw moom bëri na jëmm yoo xam ne loolu defal na leen waaw moo tax daal moom moom ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant bu baax ci jataay bi waaw li ñuy tëlee tëlee wax hmm. loolu xam nañ xam nañ xam nañ ni moom macha allah daal sëñ Saaliw tey tey sa télé bi gëm naa ni hmm. ah dina am ak yokkute sëñ Saaliw moom hmm. moom xam naa ni ku ko jataayal ah li sëñ li waxoon ni moom sëñ Tuubaa wax ci màggal gi rek ma am ki koy fonk ki ko dul fonk maanaam waxtu wa dellusee ki koy fonk moom dina gis lim rawee ki ko dul fonk waaye Sëñ Saaliw it mm-hmm. moom ku la ko gën a fonk eh, di gën a gisul yëkkati ko waaw moo tax émission bi am nañ ci yaakaar bu baax amin amin yal na yàlla barkeel bu baax a baax lii daal mooy suñu yéene bu baax a baax wan defar ak bañ a yàq mooy suñu yéene ci média bañeen ko bu ngeen xoolee Tektal TV ñun eh, am na yu bari duñ ci dugg dañu bëgg lu rafet rek ñu di wane bëgguñu tamit di titre sax lu dul dëgg titre boo xam ne ko boo ko defee mu rëy lool àdduna yi nit di la seetaan mais buñ xoolee lan fay xool duñ ko fekk bëgguñu ko ñun dañu bëgg lépp lu ñuy wan nit ñi muy dëgg tànd ak njariñ ak qualité loolu mooy suñu yéene daal ba taf ndax fi jëm du fii kontaan na bu baax a baax sëñ Cheikh Ngouda yow li koy ëppoon naa bañ a wax man nag damay ñëw ci euh, sëñ Saliou Seck ñëwaat ci sëñ Saliou ak jikkoom yi sëñ Saliou ak euh, parce que ak tuuma parce que ñi sëñ Saliou ma ñaanal dafa bari sëñ Saliou ma jàngal dafa bari sëñ Saliou ma jàngal maanaam daal euh, waykat daf mel ne lépp luñ jël sëñ xaw ma lewet gi daal la côté boobu xam nga fi mu bëgg a waxee parce que waxtaan bu sérieux ba ëpp dafa jafee wax parce que am na noonu boo ko waxee di nga tooñ keneen te li ngay wax mooy dëkk moo waral may xaw a timit tuuti ci li ma bëgg a wax mais bu ma junjee ko comprendre mooy sëñ Saliou euh, question bi da ci bokk chaque jour nga gis ci internet bi ku tudd moomi Saliou Adja Saliou Fatima Saliou May Saliou jël seen Saliou bind ko seen tur nga xam ne ko kenn ku mu xam noonu sant day mel ne Saliou lan sant léeg-léeg nag ñu sol lu doyati ci Facebook bi ba pare di wuyoo tur boobu loolu tamit euh, lu ñuy dénoncé la mu metti ñu bu dee sëñ Saliou nag gënu leen ñu ko bëgg mais orma bi ak teggin bi lan bëgg nag ko xas bay jël sa tur di ci booleeti sëñ Saliou Adja Saliou Momi Saliou Fatima Saliou May Saliou Mariama Saliou ak nangam Saliou nga doon exemple ci sa doxalin ca la ngay wane mu doon lu rafet ba nga xam ku la xool xam ne yow mii sëñ Saliou mi nga ne bëgg nga ko wax dëgg yàlla bëgg nga li mu bëgg loolu tamit lu neex la bu baax a baax ak ñi gént sëñ Saliou gént yu bari yi bu ne daal a ngi fi daal ak sëñ Saliou yërmande ci ak jikko ji ak lim réalisé ci lu am njëriñ bay dimbali état yëpp daal côté boobu la. jërëjëf sëñ Cheikh tuuma moom daa yàgg ci lislaam as gor day ñeme tuuma waaye kii liñ ko tuumaal lépp moom yaakaar naa daggul sax li ñuy tuumaal baax. est-ce que mën nga noo limal ci tuuma yi parfois parfois li ci doon rumeur nit ñi xàmmeel ko seen bopp ne lii sëñ Saliou ñu ngi koy nettali mais waxu ko lii du lii ak lii mu jeex. xam nga da di ah, léegi-léegi sëñ Saliou daawul mu waxoon danañ woon cant yàlla ak njëstal kenn mu leen a tàqale fekk biray ay nag yu bari ngay diw day njëstal mm. nee na tooñ nee na lenn moo leen tàqale mooy yéene waaw ci ci la nekk waaw léegi nag loolu moom jar naa dénoncé tamit maanaam nit ki boo xasee bi tuddoo koo xam ne kilifa la mm-hmm. war ngaa jom ma génne say cër ci biti mm-hmm. nga sensé sa la nga bindoon sa turoo bind mm-hmm. boo fexee mënoo defar sa jikko nga fexe tamit li ci biti nga dëbb nit ñi ndax nit ñi dañoo yore seen bët di xool ci Facebook mbedd la ni moo koy faral di waxee rek ci nit ñi maanaam jamono moo mel noonu ci ñàkk yow gën ñàkk yow léegi lu jug da di fëkk mais loolu phénomène bu xew la rek ku ne jël ko ndax sëñ Saliou ak lewetam ak yaroom jamono ay jamono yi fi nekk rek da ngay gis nit di yëngal fu nekk boo fa ñëwee mu ñaanal sax nga ne ni moom seexal gis ko bari na fi lool moom da cee mës a boo xam ne nag foofu laay wax dañoo ñëw ni ko waa Mbàkke tuuma ji ñu lay wax lépp ci télé bi te doo ko doo ko weddi mu ni bu ma génnee weddi ko bu subaa ñu waxaat leneen soo ma mënta génn ñu ni moomoon ndax ba mu doonul moom weddi woon na ah? na te nee na su ma dëkkee weddi du ma jaamu yàlla moo tax ma bàyyi lépp sama borom bu yemal xëy amee dina leer foofu la ko teg moom waaye moom ak lewetam ak bëgg gu bëggu doo adama yi ba pare néew wax ku néewoon ay wax la nag waa da nga dégg naa moo dafa néewoon ay ba pare jëf ji rëy lool ba pare mu bari yërmande ba pare lu mu musi ko jox waa kër Sëñ lu mu musi liggéey jox na leen ko ba pare dellu sàkkuwaat lu mu dundalee jabatam gerte gi daw ci lekk benn doom dugub ji noonu da koy jox jabatu Sëñ Tuubaa gi ak li muy dundal waa daara ji léegi wut lu mu dund ak njabootam léegi bi fi bi fi doomi Sëñ Tuubaa yi jógee mu xam ni jeex nañ addee ji mu leen daan jox léegi sët la koy jox ginnaaw gàmm leen ko daan jox waaye at mi mu nelawee muy 2007 xam ne du ko du fekk gàmm ginnaaw kori leen ko jox waaw dina woo ñu ñëw ñëpp mu jox leen ko ginnaaw korite ci tabaski gi mu nelaw moo tax ñëpp ko fonkoon mus naa leen a woo sëti Sëriñ Tuubaa baay ñu leen yéen de bu ma joxee ndugal bu ma joxee ndigal kenn waru ci jiitu ndax yéen seen baay yëpp ma gërëm seen baay yëpp gërëm na ma am naa seen gërëm noonu la meloon nag sëñ Fallou sëñ Mounou Sow moo ko joxoon kër ga ca Mbour te sëñ Mounou Sow ab rek moom ak sëñ Saliou muy sëñ Cheikh Gaïndé Fatma waaye war ma juñ ko joxoon tudde na ko doom moom tamit mu sanc ay daara nag daara yi bari na daara yi kot la sëñ 34 ci daaru tansil tubaab belal daaru moxti daaru rahma ndindi xusul ma ab daaru xuddoos daaru mën naan umul xuraa dëkk yi moo ko leen baax de jëfu sëñ Saliou lay wax li mu liggéey hmm. daaru alimu xabir ak tayba dajale fa ay junni nag defar leen di leen tarbiya yar leen ba noppi yee leen ñëpp nag ñu bëggante loolu ko ci gën a ñor ñu bëggante yërëmante moo tax daan wax ni ku ma yar ba noppi ci moom ku teg ku teg lu ñaaw ci daram mel na ni ku jël ngànnaay lu ñëw jëmee ko sama yaram wi loolu daana wax xel kom mi ngi ko sos mille huit mille neuf cent quatre-vingt la ko sos mi ngi ko toll ci vingt cinq euh, moom moom la doonoon euh, sëñ Saliou di sos sos xel kom mille neuf cent quatre-vingt laaj ndaw ñi waaw juróom fukki junni hectare la bokk juróom fukki junni hectare la mu daan dundal aw nit bari di sóol deux cent kilos juróom fukki junni hectare du ay lépp nga koy bay li mu def Touba Touba da ko bi mu toogee xalifa da ko fekk mu doo ko vingt cinq mille parcelles la Touba vingt cinq mille parcelles loolu waaye ci ak mbaaxam mu def ko mu nekk quatre vingt dix neuf mille parcelles moom la yaatale Touba waaw juróom fukki junni ak juróom-ñeenti def kër gu nekk am numéro moom la yéene woon ba pare yéene kër gu nekk am këyit sos fi turu quartier yu bari yi ngay dégg moo ko fa def jantu Mahwa yooyu yëpp moo ko fa def Touba Njaareem Madiana ci def ci dëkk bi dix milliards moom la def ci dëkk bi yu teg sos Aynu Rahma ci kuréel boo xam ne day taxawu forage yi forage yoo xam ne mooy mooy jàppale euh, def ay tuyaux yu jàppale forage dëkk bi def ci 10 millions ci boobu jamono. sëñ Tuubaa waaw def kër sëñ Tuubaa yi bari ci gox yi ci biir réew mi ak biir tubaa ak daari alxuraan yi jëndal ñu bari ay kër jox leen ko addee sëñ Tuubaa def tubaa ville sainte wàllu courant bi ak télé yi ak canal yi 45 kilomètres yi war tubaa lépp mu def ko muy mu ak 6 postes courant moo ko def. ci ab ci mag moo xam ni magal nga. yoonu njurul mu def fa marché jën yoonu njurul ba marché jën la fa def ak lujum euh, def def ci def daral tamit ak ak foraay financé ci 6 milliards ñi ko jiitoon mooy ministre urbanisme ak habitat hydraulique urbaine usine publique yoonu daara jolof fa ndoxum tubaab bi mu def mu def ko ci juróomi téeméeri kilomètres yoo xam ne ay tuyaux yi jàppalante pour jàppale forage yi noonu la ko euh, ndax daana wax ni boroomu dëkk moo daan gas ab teen moo tax forage man la ndax maa jiite dëkk bi man kon loolu ci ak yow ak miteem moo tax mu defan ko ba pare mu doon koo xam ni boroomi karaama la xam nga dafa am bis muy attaaya waxtu tisbaar toog di waxtaan daat ni suñ taal dana tibaate boppam sax añ buñ toggee ba mu tibaateel ko boppam yi waaw ba pare moom mu door a xewlu ca lu dut lay xewlu waaw daana defar café Touba fii nii ma la wax ne ataaya lay defar daal di wax ne ab dëgg de mën naa toog ci këram di ataaya ab taalibam di lab ca géej ga mu génn ko ca lu jóg fi mu toog waxtu moom ko mu desee ca heure ba benn ku ñu wax sóor gi moo ñëw dal ci daanu ciy tànkam di jooy ñu ko dim ba nga may xettali lii nga soloon kon tuuti ma lab mu jug dugg ci biir ndax bëggutoon a feeñ moom ba pare yoon ci yàlla Suleymaan yàlla daf koo mayoon buy dox ci mbedd mi day digg xorandoom di wax benn bis lay dox mu ni moroom yi udxuluu masaakinakum laa yaxtimanakum laa yash'uruun mooy dugg leen seen sëñ Saliou yàlla defal nag ko dafa woo ab talibeem ni ko xorandoom yi dañ fa ñëw di ma kalaame talibe yi nee bu ñuy ziar dañ leen di joggi wutal dugub ak ceeb nga defal ma ko def ci ko def ci pegg yi boo bu yorut dara ni daa di ko ko jëwriñu xorandoom yi ñëwaat na ngi sant te loolu yonte yàlla Souleymane la ko yàlla ay loolu da ko doon ci maamam ci ci baayam Serigne Touba maay doomi Serigne tubaa moom doy na ndam ba pare sëñ Cheikh mi wax léegi bëgg gu mu bëgg Maam Serigne Fall ak mu jëm boo gisee photo xam nga ne kawar gi dafa njañu comme Maam Serigne Fall la mel Maam Serigne Fall yurtoon rasta dafa njañu woon góor a jéey mi doon ab sufaram moo ko ko mu ko war nag daal di koo tiim ni ko ah, mbàkke tey dangaa bàyyi faale mu ne ko bàyyi ko dangaa nuroog sama ko loolu rek la bëgg nuroog sama bàyyi Cheikh la karaw googu la ñibbee àjjana waaw gis na ko si siñu ay dara bi nag bëriwul ndax ñoom fukki at ak bi ma nga woon suuf mu fay ma gën a denc kooku ak talibeem yàlla bindul kooku amee noonu waaw moo tax dañ fi ñëwaat beneen jotaay waxtaan ci Serigne Faal spécialement Serigne Faal bi daal bu bëggee daal mu dox mm-hmm. maam Serigne Fall moom yoon wi la woon waaw mm-hmm. ngi dégg maa ngi dégg léegi benn waykat di wax euh, Mbaye Ndiaye ko mm-hmm. daal ni borom daru lamp yoon ni kër gu muy raam sëñ di joxe addiya ak ak dara maam Serigne Fall boo koy laal di baax bëgg ko nag yombut maam Serigne Fall bëgg ko yombut xam koy bëgg parce que waaw waaw yi ci nekk moo bari di nga gis di nga gis ku la diingat di nga gis ku la ngañ di nga gis lu ne maam Serigne Fall boo yàmbaree doo ko a lii dama am ko mosoon weranteel ci benn mbir li ngay wax nii ji fekk man affaire bu yéeme moo ma dal sama doom sëñ Fallou moo xëy benn ñu ànd mu laaj ma maam Cheikh Ibrahima Fall kan mooy papaam xam nga ma am problème xam ko man laaj ka ma laaj xam ma am ko ca diima ne ma sëñ Modou Roxee Fall waxuma sëñ Amadou Roxee Fall bi ma ko waxee ci laa ko jàpp ma gis ne lii ma dal ba xam ma ko woon bari naa ñu ko xamul may am ko ma koy laaj benn waay bu xaw a sàggan rek mu ne ma loolu amalu ma njëriñ ma ne ko diw muy bëre papa nu mu tudd mu wax ma ne ko ah kon <laughs> daf ma bëggoon a jaay ci jot léegi ma laaj ko mbërum làmb moom xam papam waaw léegi ma ba xam ñaari papa yi bu ci ëpp foofu laa foofu la jotaay ba daggee mu xam ne amul munul am dëgg sama kaw mu noppi <laughs> moo tax tey xam maam Cheikh Ibrahima li nga wax ne fit bi mu laaj parce que boo amuloon réponse bu wóor day mel ne lii ngay doon laaj dafa amul njariñ te fekk maam Cheikh Ibrahima Fall li mu liggéey ak passif bi war nañ xam léppam ci lu baax ndax ñu man ko roy bu baax a baax macha allah kontaan na bu baax a baax daal léegi bëgg nañ ñëw tamit euh, ak sëñ Saliou ak xasida loolu ci waaw ban xasida la bëggoon ak xasida bu muy faral di jàng ak xasida la sëñ Saliou xasida yow tamit question bu da ci jël sa wàll comme jàngkat xasida moom xam nga moom doomi sëñ Tuubaa la lu baax rek la mën a bëgg waaye xasida rab bi maaye sorxo moom ñëpp dañ ko xam ne daa ko daan ñaane ah, mm. da ko daan moom la daan ñaane waaye xes dëgg nooru daari ni xes daamoon daana ko jàng lu bari sëñ Mountakha mi dégg ko ne la sëñ jox ndigal ko dee ma dee ko jàng di ma ci ñaan ñu sunu xalifa bi sëñ Saliou ko teeloon fonk la ba ko su ma mm. ba ne ko su ma fi jógee nag ma taxaw a xam moom daa tëlul addina hmm. waaw xam nga di defaroo ko ak diwoo ko def affaire loolu ku fonk addina ko hmm. ak koo xam ne xooloo fii nit ñu bari ñëw fort sa ginnaaw gi bis yàlla sàkk boo xëyee ay balaa nar leen dara ngay ñaan yàlla mu dal sa kaw hmm. kooku tëloo dagg yooyee ka tara defaru waaw suñu ak bi mu toogee ndax waaw daana dem Casamance daana dem Mali daana dem Gambie daana dem Cameroun dégguma ko nag ci sama gëstu waaye réew yi ma la wax moom daana fa dem waaw. a sori fan. bi mu toogee xilaaf moom. yaakaaruma ni génn na fi dem ay dëkk yu sori lu dem ci ay toolam ak ñoom. maanaam dama bëgg wax yooyu dafa amoon kër moo tax. Hmm. yooyu njaare na njaareem kër am na mbuur kër mbuur dafa yàgg dem moom. Hmm. loo tax euh, ci Cees tamit daana fa dem. Hmm. ndax boo xoolee fa daan dal ci ca gën. kër Seex Béthio la waaye dafaa ñëw ni Cheikh Béthio Thiès de li tax mu neex ma day Carrefour foo jëm da nga fay mën a da nga fay mën da nga fay mën a wàcc Cheikh Béthio ne ko kon kër gaa ngi nii génn ak njabootam jox ko kër gi naa am loolu ci seen ci seen ci seen Saliou da ko teel ko teel ko liggéeyal sëñ Saliou daa bëri yërmande lool dafa am bis ci mu toog ci daara ni donc yi suba naa leen neexal loolu bu leen ko waxee nag mooy suba war na leen a toggal ceebu jën bu am jën yu mag ndax dawul am xel ko da nga daan toog lu yàgg doo lekk ceebu jën bi ki mu wax na ni ko boo xëyee fajar teel boo jullee rek bul tëddaat na nga dem dabi oto jën bi ko war a kari fa mu war a dajeeg moom mu jox la jën yi nga indi ko waa ji nag biddante sëñ Saliou xëyee ko diw dem nga ba ñëw mu ko dama mbàkke maa ngi jégul damaa tardé mu ne ko ah, teg nga ma gàcce de xam nga bu doon kilifa gu tàng day xas waa ji waaye déedéet sëñ Saliou dafa nite waaw waaye dani ko kon de dina am gàcce donga yi de du ma leen mën a xool xanaa tey ma bañ a génn néeg bi ndax maa leen ko digoon te ko ne kenn wuru tas yaakaaram ndeysaan ñu toog wax waxtu midi rek Cheikh Béthio indi fa camion boo xam ne da ceebu jën bu baree baree bari indil ko ko bi ñu ko ko waxee daa daay tuur ay xéwal daal ni moom dutuma te gàcc mukk ca di wax benn taalibe ni ko ni ko léegi defar defar ko defar wax donga yi ñu jëfandikoo waaye ku bokk ci daara ji bu mu ci sukk fekk daara ji ay gan dañ fa newoon benn waaye sukk ci bool bi comme donga du sangu daal di wax donga yi da ngeen am xet nekk sëñ Saliou dégg na ko mu naqari ko lool mu génn daal di wax ki mu waxal ni ko defaral ma fi ni ko wax ma ni ko damaa dégg waa ji toogoon ci bool bi lu tax nga bàyyi ko mu sukk sax la ko wax mu ko yaa ni ma woon bul jànni kenn moo tax ko mu ko dëgg la waaw góor ci ndigal li nga jëfandikoo waaye moom de dafa maa tooñ dama ko dégg mu turi xetu donga yi te mi ngi mel ni sama gis ndax donga yi man rek la noonu te na xet gu gën gën a gu gën a xet gu donga yi ndax bi mu nuyoo damaa xam ci soxna jàmbur dafa naan joxuma ko tax dama ko suturaal dama naa suturaal donga yi ci seen xet gi noonu la meloon waaw bari yoon yërmande nag lool ba pare ba pare ñëpp warmal ko da ko gis ko koy dingat dañ ko warmaloon ndax yërmande ci moom boo ñëwee da lay jariñ ba pare di la ñaanal boo ko musaan jox ab kaamil xaalis bari bari la lay jël di la jox ndax kenn ku ne da nga doon sañ boo bindee kaamil da ko ko ngir mu ngir ngir ngir maanaam teraanga ji ci moom ba pare doomi sëñ tubaay ñëpp warmal ko sëdi sëñ tubaay fi ne kër dugg tudd nañ ko doom doom lañ ko tudde ñii tudde nañ ko seeni sa tudde nañ ko ba ci sëti sëriñ tubaay ko doom ndax war ma ji ne ci moom kenn ku ne am na lu la defal ba pare bari njariñ lool nag moom yoon wi ñi ngi di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te wér maanaam moom it muy ñaanal nit ñi di xëy suba naan na ngeen génn sarax sàngam na ko def ngir jariñ nit ñi daana wax ni bu doon ak nit ñi duma fanaan génn guddi ci kaw suuf bëgg leen a rek moo tax ma fanaan ma ne ba pare daana wax ni ku jamonoon teeg man ruus naa ngay dem sawara xam nga googu ñaan nag di ñaanal nit ñi bu kenn dugg sawara ca sa dund gépp nga jaamu ko sa borom yàlla yàlla fayal ko jërëjëf bëgg nañ lool ñooñu ni ma leen mere woon ñu doon wax li xew buñ toogee rek eh, tan commencé SALT GE comprendre nga xam ay temps ñun ñu ngi ñaan lu man suñ programme julli sëñ Saliou yàlla na fi yàgg tëwér saa fu rek nga dégg ñu naan kilifa gu mag nangam moo tax bu fi sëñ Saliou jógee ci laa leen talatu lu leen nax nan wax fi nekk nii parce que boobu moom oh là là dafa dawoon yaram daal sëñ Saliou eh, parce que man occasion bi ma mas a am ci sëñ Saliou Euh, du xaj fii sax mais nan bàyyi noonu mais dama bindoon benn lettre bi ma bindee lettre pour war ko jox sëñ Saliou euh, léeg-léeg dinaa ñëw julli jumaa am occasion gis ko mais doo am accès seen ku ne léeg-léeg di nga ñëw ba def nii loxo rek delluwaat ginnaaw ñuy dem noonu ma dëkkee yor lettre bi rek benn ajjuma daal ma jël lettre ba pare lettre ay weer laa koy def sama poche ma jël ko dugal ci poche mu lettre mel ni daf may xatal ma ne naa ko delluwaat bi ma ñëwee euh, Ousmane Ngom. moo doon ministre de l'intérieur man daal maa julli pare ñëw ci ginnaaw fekk oto yu rafet taxaw foofu rek ma ñëw dugg ci oto yi jaar ci porte boobu ñëw boo solee lu set rek ma ñëw ñu may ma ma jàll ma dugg fekk fa yu baax ci njaay ni lekk yeeg yooyu ma ñëw lekk parce que une boo xawee dekkoon tuuti ñu génne la foofu léegi ma ñëw toog tuuti lekk ba suur xam ne mënumaa roñ yóbbu mënuma kii ma jàpp ne daal suur naa naa toog bi ñu dugg ubbi kees gi ñu dem dugg ci kees gi sëñ Saali bu nekk ci laa dem dugg boo mel na ci délégation bi laa bokk bi mu duggee ñu xelli kafe ba naat ba pare bi naanee ba pare ñu bari ñu àndoon ak ministre bi jóg topp ministre ba ñu bari ñu nekk ci kër gi tamit jóg toppaale délégation ba yàlla def mag yàlla moom ñu wéet ma ne laa ilaha illallah man ak yàlla ak sëñ kii àddina yi laa toogal nii yàlla ma kii tàllal ñaanu ñetti yoon yooyu ñoo ñaanal ma ko ma pare jëlaat suuf jox ko mu ñaanal ma ma jël kurus jox ma ma toog nag xamatuma lu may def léegi la ma waroon wax ca lettre ba moom am naa yaqin ne jaratu ko moo tax ba nii waxuma tax xam naa ne li nga wax sànq ne bët yooyu ñu la doon xool man tamit jàpp naa ne jataay boobu noonu ah waaw jataay boobu daal santi naa loo xam ne que daal ñun di wax ne ak taalibe bu jotee bu jeexee ci ñun lu ne mën nañ ci sàggan ci àddina mais ak taalibe du nangu yemale koog lenn te ñu ci am kun ci jiitu dina la naw loolu daal la ni nawee nit moo tax keneen kun àndal nga doon nitu àdduna buñ duggee ci oto bu buñ paree tëjal sa porte ñu tëj ko boo yoree bagage bu diisee ñu jàppale la man daal li nu soxla ku la gën a ragal yàlla mënu jaral toroxlu ci àddina dara mënul fees suñu bët nag lii mooy suñu yéene yàlla nu yàlla gën a jàppale bu baax a baax a baax sëñ Aïdara kon yow yaay wax nga tëj tàggatoo bu ko defee saa waxaat tëj muy nag da da wax li la neex li nga bëgg a wax ba pare nga soog a tëj nuyu ku la neex na gërëm ku la neex yow tamit nga gërëm ku la neex da nga gërëm ñoom sëñ am ak ndax ku ku la fonk la nga gërëm waa Pikine nag teg Tektal TV ngeen nekk wax leen lu neex waaw boo amee loolu ñuy ci sëñ Saliou ak loolu may kaas tamit nga kaas le ma ko mooy Adja Saliou Momi Saliou Mati Saliou euh, Mami Saliou euh, ba pare yor exemple bu bu rafetul daal. waa kay sëñ sëñ Cheikh Euh, macha allah am na solo trop li sëñ Saliou indiwaat euh, may am lu may dolli tuuti rek ci li sëñ Cheikh Ngounda wax ak sa diggante ak moom ci wàllu lettre boobu jëmu ju baax jom ne su ma ko tuddee du ñàkk sëñ Saliou mi xam ko ku siiw la ci waxtaan yi te ragal yàlla te baax bari xam-xam bokk ci wa Mousso bi nee na bi ñu nekk ci daara ji di jàng am benn laaj bu fa ñëwoon ñoom yàlla daf leen di may basiira bi mu ñëwee dox ba egg xel koom ne ko moom fii ñu ne ko sëñ Saliou mu ne dama koo bëgg gis nee na ñëwee fekk sëñ Saliou génn waaye bi mu ñëwee joxu ko loxo dafa topp di xool sëñ Saliou rek bu xoole sëñ Saliou ba mu yàgg mu dëppaat tàggutoo ñi ko waroon sëñ Saliou mu leen kii ñaari bëtam yi li ma ci yàlla woon mooy ba mu gënee àdduna ba fii ma ko gisee mësta mooy yàlla mësta mooy yàlla te ñoom borom basiira lañ kooku waxul ci zaahir nii lu ma gis la xam nga alxuraan dafa wax ne minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa ci jullit am na góor ñoo xam ne kóllëre gan waxante woon yàlla mooy ci jëf ndigal bàyyi tereem bañ koo moy kóllëre googa ca lañ nekk wa ma badalu tabdila dara sensé wu ko sëriñ saaliw bi mu doonee ab jullit yàlla togg ko mu jaamu ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ba mu xàmmee xam ne jaamukatub yàlla la quatre-vingt-douze ans yi mu dund mës cee def lu ko astaxfirullah di fekk ajuma ji muy génn àdduna wàcceelu kaamil ñu teglu alxuraan ji daal jël loxoom loxob sëriñ Saliou Touré teg ko ci dënnam ne ko am na juróom-ñeent fukki at quatre-vingt-douze ans mësumaa def lu ma astaxfirullah di fekk sama bis yëpp jox naa ko yàlla laataa muy demit dix milliards la jël moom Serigne Saliou def ko ci compte Serigne Touba mu biir ne moom li mu doon dajale lekku ko woon moo ko njabootam ak i jegeñaaleem lu mu ko mas a jox ci sëñ Tuubaa dërëm ba mujj ba njëkk dugg ci moom ak bi mujj dugg ci moom lépp rek delloowaat na ko ci boromam tabaaraka wa taala mbokk yi bu ñu dee wax modèle référence ku set wicc ci zaahir ci baatin nañ jël Sëriñ Saaliw bu ñu dee wax yërmande xol bu rafet jikko ju baax defar addunaam wane ginnaaw mbiram fi mu jaaroon foofu foofu continuer di baax nañ jël Sëriñ Saaliw Mbàkke gis nga dafa am ku bind al alquranul karim indi ko muy jàng wayam ci wa ma arsalnaak illa rahmatan lil alamin rongoon yi faste ci sikkin ba waxoon naa ko mu ne ku dul yàlla mi bind jaam ñi ëpp mu yërmande ci jaam yi sëñ Moustapha am sëñ Saliou da koo seet si ñëw nuyu ko toog mu ne ko kooku Moustapha mu ko Mbàkke mu ne ko mbaa bokkoo ci ñu naan damaa doyadi mu ne ko dégg gi sax dama ko tuub Mbàkke mu ne ko ñi ngi naan damaa doyadi de ci wàllu col gi wàllu bëgg àdduna ki ñàkk bëgg àdduna ki mu ko waa moom day doy na waar mu ne ko xam nga janaab janaab mooy muus mu ne ko xam naa janaab bu baax mu ne ko buy rëbb jinax ba war koo jàpp ba am koolu kóolute confiance bu xam ne bu tëbee jàpp ko bu ne bëree dana ne tekk ab diir si musuwaa ne tekk mu ne ko tekkam jooju daf may laaj sama ndigal man saaliw ma jàpp wala mu jàpp su ma ko joxee ndigal mu jàpp su ma ko joxul ndigal mu jàpp ki nga xam ne dem na bay aar jinax yi di aar doomu aadama ko kooku mooy xut bu samaan mooy jantub jamono xutbu samaan nag du ñëpp koy doon nit mën naa ñëw baax dem fi amul tër du doon xutbu sëñ Saliou nag dafa indaale maqaamam xutbu samaan ci kaw jamono kon jëmm jooju la ko woykat ba waxoon rek dongoom bu yalwaan daa nari caaxaan daa rame ñoo daan seen ñam ya neex na loole lépp nag maanaam moo nekk rek ci jëmmi Serigne Saliou kon yàlla nañ ko yàlla fayal di la sant sëñ Cheikh di wax ne émission bi am na solo trop di sant Serigne Saliou Euh, di sant Serigne Cheikh Ngonda waaye di nuyu bu baax daarul moxti ga nga xamante ne fa laa dëkk euh, ndax lu mën a xew rek euh, kun dàq fa nga fa nga dëkk ngay dellu kon waa daarul moxti yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu xalifa ba di nuyu sama Serigne sëñ maam Thierno soxna Kunta Mbàkke mi nga xam ne ci daaraam laa nekkoon doon fa jàngalee bokk ci mbooloom maa ngi koy nuyu baax waaye di nuyu sëñ maam Mor Mbàkkim sëñ Abibu di sama wëllëre di sama xarit di ku baax koo xamante ne moom a njëkk a dugal ci télé wax naa ko ci émission bi ma doon njëkk def maa ngi ñaanal yàlla defal ko tawféex ah, fii ma nekk ci parcelles yi sama xarit bi ma fi nekkal sëñ Modou Seck maa ngi koy nuyu moom itam di ko ñaanal di ñaan yàlla noonu yàlla defal tawféex yàlla fayal nu Serigne Saliou yàlla def lii nu fekk at mu baree baree baree baree tuuma yi nga doon wax nag jëmmi tuuma yi Cheikh Ibra Fall Serigne Saliou ñoo gën a sonn luñ jëm yàlla ca mbooleem lu baax mm-hmm. bu baax bu doon kursu mm-hmm. doo seen ko jot Serigne Saliou baax bu doon kursu mm-hmm. doo seen ko jot Cheikh Ibra Fall waaye nag yàlla maanaam ku mu defal mbir rek am coow topp la yàlla bu naree tasaare kéemaanam daf koy def ci làmmiñu ko iñaan wala kuy caaxaan su ko defee kéemaan googa kay iñaan wala ko caaxaan nga day topp di ca tudd ak di ca wax naka su dul noonu waaye may bàyyiloo xel ne laataa yonent bi di ñëw dug yàlla ku masaan wax ci moom dara boo xëyee kanamu bukki ngay doon wala kanamu xaj dawkat bi yonent bi ñëwee la yàlla suturaal aw xeetam ku def lu bon baa nga wax lu bon kanam gi moom ngay amee ci baatin zaahir bi doon sa jëmmu ku bañ sa àdduna yàqu bàyyil nituk yàlla koy tuumaal naan feeñu na maag def na ma nangam sëñ Saliou ni mel ci yàlla li mu defal yàlla ku mu feeñu ñu xam ne feeñu na la ku mu jox mbir ñoo xam ne jox na la mbir jëmu jóge na ndakaaru ànd ak doomam bët bi am cancer mu dem di ko yóbbu ci Serigne Saliou keroog bi xale bi jàkkaarloog Serigne Saliou la gëj a yëg bët bi doon xasan la gëj a yëg feebar bi koo xam ne boo na koo jàkk sa feebaru bët dañ bu la feeñoo ku la xool xam ne Serigne Saliou wala feeñu wasalaamaaleykum wa rahmatullah sama ñaxtu bi nag Adja Saliou moomi Saliou ak nekk ci Facebook bi waaw moom de xam naa ne mooy lu man a xew euh, xam naa ne sax xawma leen hmm. non de am njën ci la de bi mën naa mu ëpp mën naa mu doon njumte ma naa mu doon lu ne mais dañuy jël tur woowu mu def kow sant ba pare nag léeg-léeg exemple ni ni mel du neex ak wutuy daal xaa xam nga worma dafa baax lu yàlla wormaal nga wormaal ko alxuraan ne woon na moo gën fa yàlla sëñ Saliou kenn amul droit tere nañ bëgg sëñ Saliou waaye boo koy bëgg mbaa ñu di la tudd nanga nga mel noo xamante ne ci waa kër sëñ Saliou ci wàllu col gi wàllu waxin wi wàllu mel te ku bëgg sëriñ Saliou di jigéen ne jigéenu lislaam war a mel noon nga mel loolu rek laay barkeelu. waaw loolu moom yéen ñëpp deen ma ciy ñaxtu la <laughs> sëñ Cheikh Ngouda euh, léegi yow yaa ci des xuma looy tàggatoog looy waxaat ci sëñ Saliou ak sama ñaxtu bi nga booleel ma ko ci ak yooyu ci sëñ Saliou waaw ak koo tudd nga gërëm ko waaw. guddee moom dëkki na aljana fekki yaa dundu guddee gën yegsi naa mel ni sëriñ ba fàddu naa jurul moom dëkki aljana fekki sang yaa adduna wér na ni cundum wut yàlla ak wutub dërëm léegi ñu yem kon fu nu ñu mel ni ceddo ku saytu jugal njukkal borom jurul bañ ko dakal àdduna dooto fi dalal ku tol ni sangub sang yaa sëriñ saaliw ku saytu ngor jugal njukkal borom jurul bañ ko dakal àdduna dooto fi dalal ku tol ni sangub sang yaa lon rahmatan wa baraka min allahil badi xayru min dunya ma fi xayaat ñu ngi sant bu baax rek ñu ko waxee woon ci bi ñuy tàmbali jataay bi ndax jataay ëpp ko solo waxtaani sëriñ Saliou moom fi la ngëneel tàmbalee fi la ngëneel yem ndax boo koy waxtaane yaa ngi waxtaane njabootu sëñ Tubaa gépp nag yàlla ñu yàlla taas ci barkeem ci darajey sëñ Tubaa barkeem xasida yi soññaat suñu bopp rek ngir ñuy roy ci jikko yi rek ndax sëñ Saliou moom foog naa benn jikkoom rek ku lijjanti ba ba saytu ko ba am ko rek sa àdduna jag sa laaxira jag ko ni nga ko waxee rek xir gi li ngay ñaxtu moom ni ma gisee mooy hmm. ñoom ay saalixaat la ñuy woowee seen bopp hmm. saalixaat nag suñ saaliw foog naa ne hmm. ku xam lu muy lu mu wund di nga di ba saw melo macha allah nag am na ñoo xam ni seeni melo ci solo ki bëgg xasida ñoom ñu ngi nuru nuru loolu waaye benn benn nag ñoom ñoo ñoo dul xam sax turu saalixaat lu muy lu mu war a jëmmal moo tax ñu yor wenn xeetu melo yi waaye may soññ ñëpp rek ku ci am ak xir ci bëgg sëriñ bi ba ba koy wuyoo ah na nga jéem a mel melo xam ni ku la gis rek gis ci yow sëñ bi parce que ñoom dañ leen a gërëm ci bëgg sëñ Saliou gi hmm. bu ko defee nag ñoom nañ góorgóorlu ba ku leen gis rek nañ gis ci seen jëm yi sëñ Saliou dëgg la waaw loolu foofu doy na soññ ci ñoom kon yéen ñi bëgg sëñ Saliou yi ngeen ko maanaam d'accord nañ ci bëgg gi yàlla na wéy te yàlla na leen ngeen ci am lu kawe njort ndax bëgg sëñ Saliou wax dëgg yàlla bëgg nga ku baax te bëgg nga lu baax te bëgg ngaa baax erreur yu ndaw rek des te nit matul mais boobu buñ ko rectifier rek mu baax parce que exemple bi la nooy mel ci suuf yow la mais li ngay wane na rafet. nag ñu ngi santaat nag bu baax. waaw sëñ bi sëñ am waaw ndax ah, comme ni nga ko waxee rek di sama wëllëre di sama lépp. ñu mhm. koy ñaanal moom it ah, fa mu nekk. fa mhm. liggéeyal sëñ Tuubaa suñu borom gën koo yokk. gën ko taw feexal suñu wóllëre la comme ni nga ko hmm. waxee yàlla dogal na suñu xamee sax hmm, hmm. Ah, ci ci moom bokk na ci bu baax émission bi bokk na ci ñi ko taxawal ah, waaw bu ko defee muy nuyuwaat suñu waa dëkk ba de Amérique ñoom ñëpp it dañuy dañuy seet seetaan euh, Tektal TV di ci di ci di ci nuyu rek euh, suñu wóllëre yu baax ah, di ñu jàppale ci liggéeyam suñ tubaab bi waaw bu ko defee di ci jiital rek président wu euh, Mika sëriñ Papa Dramé ak sëriñ Madiara mm. mi nga xam ni mooy dalal jànkatu xasida yi foofu di sant it samay jigéeni bopp mm. soxna Wuri Jàllo bëgg sëriñ Fàllu ak soxna Mareem mm-hmm. mbooleem ñi nga xam ne rek soxna Fat Jenn ak mbooleem ñi xam ne ñoo fa nekk ci liggéeyal soxna Jaara mm-hmm. liggéeyal sëriñ Tuubaa waa réew mi it ñu ngi leen di sant euh, a mm. ci réew mi la ñuy dellu si li nu am ba koy yóbbu faneen ñu nawit fii ci sunum réew lañ ko jële kon nag amee nañ njukkal mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi nga xam ni mm-hmm. ñu seetan seetaan mm-hmm. di ñu déglu di ñu soññu mm-hmm. ah, te muy loo xam ni lot nañ ci mën leen koo fay ñaanal ñëpp ku seetaan émission bi daal yàlla na tajeeg ah, fajuk ajoog sëriñ Saaliw ba di sant nag ñi ma bokkal jataay bi sëñ Saaliw alxuraan mi di ku baax waxtaanam yi mu waxtaan sëñ Saaliw dinaay dégluy waxtaanam waaye wu wi moom wax dëgg yàlla ni ko sëñ dara waxe rek am na fu mu ñu yóbbu ñun ñi bokk ak moom jataay bi ñaan suñu borom yokk xam-xamam bu baax a baax barke seew kontaan nañ bu baax a baax kooku mooy sëñ Cheikh Ngunda xasida di ku baax nekk fële ci réewum Amérique di xaritu sëñ am jóg bëgg lu baax euh, am Pastef euh, léegi ñu ñëw ci sëñ Saliou Seck alxuraan euh, nga ñëw ci li ngay tàggatoo tey nuyu tamit sëñ Cheikh Saliou Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ko wér ak sëñ Moustapha parce loolu la ñu waroon njëkkee ndax sëñ Saliou la ñuy wax mais tàmbale ci sëñ Saliou benn la wax dëgg yàlla ñoo bokk fu mu jëm sëñ Moustapha ñu koy ñaan mu yàgg fi te wér lan moo waral tamit sëñ Cheikh avant sëñ Saliou di fi jóge siiwul woon sëñ Moustapha gënoon siiw ba ñu bari gën a xam sëñ Moustapha loolu tamit booy tàggoo nga boole ko ci lu waral. jërëjëf sëñ Moustapha xam nga daa yoroon kàddu bi te sëñ Cheikh daa ne woon ci tool yi di liggéey tool waaye sëñ bi da ko yoroon daa yoroon kàddu sëñ bi mm. moo mën a génn ci nit ñi di wax sañ bi di ko yónni bu kilifa yi ñëwee mu leen di dalal loolu tax mu gën a na siiw nag hmm. waaye sëñ Cheikh li ngay li ngay li ngay tere nii jigéen ñi xam naa ni dina am ñu ko bàyyi waaye du yomb jamono jamonoy internet la ñu nekk internet bi li yàq ci réew mi kenn xamul nu mu toll. gis nga jotaay bii ñu ci sax lu ne lii ñu koy tudd nii a nañu cee fekk lu ne. internet moo doy war daal internet nag entre nit ak nit la hmm. maanaam ku ne yaa xam noo doxe bu ci bokk ca mbuumbaay bi di nga ci mm-hmm. boo ci bëggee jariñu di mm-hmm. de maa ngi ci jariñu parce que bisu yàlla sàkk dinaa ci jël ay mm-hmm. na ñoo xam ne nag ñaare ndeysaan dañuy yor téléphone ci seen biir néeg seen waajur duñ yëpp ñoo ci def lu leen neex jamono nag moo yàqu ma ci série yi ñu saan ci télé yi moom it lu yàq ci réew mi ci la bokk yenn série yi benn nit ñoo yeewut mais jamonoy marimar ba tey benn benn benn benn benn kii bi la ñuy dawal <laughs> maanaam benn benn benn tam bi la góor ak jigéen boo leen gisee taxaw ci mbëggeel la ñuy wax ñaari góor ci seenus ndaw la ñuy wax ak seeni projet ñaari jigéen ñu taxaw ci mbëggeel la ñuy wax ak seen rifaal ba diw ak diw ñoo bokk bàyyi nekk xamante wuñu kii di nekk moo jur ki waaye xamu ko woon loolu mooy benn thème bi ramarimaar ba tey film film ba acteur ba day rey ñëpp fin ba mu soog a dee waaw léegi nag loolu ñu ñun topp ñun mu yàqalam suñu yitte yëpp ba pare doy na war daal mënuñ. am na sama benn jaay nee na ba mu xamee ne du dëgg la ci taayete sonn quoi ba mu xamee ne lii. <laughs> Ah, léegi nag yooyu daa mat di bàyyi xel. Hmm. waxuma ci dara nag déngatuma ko mais. nit ki hmm. nga xam ne mooy nit ku nekk nit daal. da war a xam li nga war sa temps ak li war a jox sa temps. Hmm. ñoom dañuy liggéey. yow boo nekkee sa liggéey fonk gi nga koy fonk. bu heure waxtu julli jotee wala heure nangam jot wala heure boo war a jaamu yàlla bu la ko dara yàqal. léegi nag loolu kilifa yi ñoo ci am part responsabilité. doom boo ko yoree da koy jàngal ndax maa koy wax de bëkki démb sa sama estati ma ni ki fexe ba sa doom man mboolem luy tubaab di ko jàngale hmm. nga fexe def ci te ba man ko te hmm. def wuyite ci mu man alxuraan boo dee di nga ko lay hmm. doom mu dund ba faatu wala yow mu dund ba faatu te mënul alxuraan nee na jërutoon ngay fanaan bi di boo jàngee alxuraan léegi bu ñu wax naan diw jàngul jàngul la ñuy wax de jàngul waaw jàngul da ca ca maanaam ca maanaam dama koy faral di wax maanaam ñi jàng français ñëpp ñu baax lan waaye fi ne buñ amee jafe-jafe ci nit lañ jëm de fa la ñuy dem kon waaw ok te li yàlla digle nag bokku tamit tubaab bi créé moo tax nañu góorgóorluwaat baax a baax yar suñu njaboot am ne kii ñu waxtaane nii mais li ko fi indiwoon mm-hmm. fexe nit ñu baax rek ko fi mm-hmm. te loolu moo fi indi mboolem yonent yi mm-hmm. doomi jaamur yi mu jël kenn fayut suñu sal yorutan internet booy fay kenn fayut mu leen di dundal di jour bu yàlla sàkk deux mi cinq cent kilos ngir doomi yi baax imagine loolu nag maanaam yow du sooy doom mooy doomi jaamur yi nga bëgg lu baax mm-hmm. yow bu dee sax njaboot ñi nekk daara ji bëriwul mm-hmm. waaye ay doomi jaamur ñoo fi nekk fukki junni nit nga fexe ba mën alxuraan mm-hmm. loolu bu la ko yàlla fayee lo bu fekkee ne sëñ Tuubaa dañu jamono am fi lu dul kii dong mu jëf fi lii da war naa tax ñu bëgg ko moom sëñ Tuubaa waxantumaag mu am fi keneen sëñ sëñ son yi bu ñëw sëñ Abdu Xaadir sëñ Fallu ñooñu sëñ mënu soit ci liggéey bu rëy ba ak mag ñi ko topp nga xam ne kii ñii ku ñu topp xam nañ ko mu doon ku mel ni maam Serigne Fall nga xam ne ba muy wax ak yàlla du tey mus nay xibaar ak jébbulam wax ni yàlla mi ko moom yàllaa ko ni bàmbaa la moom mm. waaye ku wax ak yàlla looy doyeb sëriñ mm. kon mm. ñoom ki ñu bëggan xam nañ ko wormaal ko loolu ki njabootu jàmbur gi mu jëleen di leen defar ku ne war naa xoolaat ne kat mii kii daa jël man man de bu fi jógee kon war na maa góorgóorlu ci samay doom te liggéey boobu ba tey sëñ Seex fa mu ko fa ko sëñ Saliou tegal da ko ko yokk day tabaxi juma ba mu àgg muy kay leen julli espace bu njëkk rek mu <laughs> fi baax na ci juma moom ba pare nag luñ bay ca daara ji delloo ko fa boole di liggéey di di jaay ngooñ di di ko defaat ci daara ji di jaay gerte lu ne mu koy defar di ko liggéey doomi donga yooyu tey leen gën a yokk tey leen gën a mën a wokkal alxuraan kon nu ko ci a baax moom am njàngam maanaam bu bu leer gi jàllee yaru gi ci nekk ca xasaa it loolu da cee am solo ndax sëñ Saliou daana ko wax daanaka diw dañuy yàq xes day mu naa ah, sëñ Tuubaa la waxoon dafa na xasaa yi di fu ñu ko yàq kenn dafa yàqoo waaw waaw ndax ki jéem ba yàq moo te ne ki jàngul de ki jéemul waaw waaye moom da koy jàng-jàng mu leer macha allah ba pare boole ko yar bi ndax ñëpp ko bëgg yàlla yàlla defal la taw feex barke sëñ Tuubaa sëñ ay dara saw moom noo bokk daaru muti maanaam moom muy taalibe bi sëñ maam Cernoom sëñ euh, sëñ sëñ maam maam ay dara ñu tuddee ko sëñ ay dara mu maam mu borom daaru ba sëñ ay dara wa turandoo mbooleem doomi borom daaru yi moo ci gën a nuru kanam ñëpp nag sëñ see xadde ko bokk ca daaru muti yàlla yàlla defal la jàmm waxtaan fi waxtaan wu dal nag tubaarkàlla te neex am pédagogie bi ci nekk yàlla yàlla fay la sëñ Seex yow it ñu ñaan télé bi yàlla na ko yàlla def télé bu mag a mag a mag a mag li nga def nii kay ku sàggan du ko def sacrifier wala kuy def nangam nangam mm-hmm. wala féticheur gisuñ ko sa télé bi bilaay bu doo fi mën a jox boo feebaree fàtte ko ñu baax rek lañ bëgg baax yi nga def nii ca wax nga ko fi rek am na solo jël benn titre bu rëy rëy wax ko ñu dugg beeku ñu ko fa benn dèjà def nga bàkkaar bu rëy rëy mooy wax nga lu dëgg hmm. pare yu bare bare bari dugg jeexal seen connexion xool li nga wax ndax am na fekk amul hmm. yu bari fi ne internet yu bare bari dañ ci dugg sawara ci duñ hmm. da cee nekk xam mooy a bon ñeent ay gor ñu jënd seen connexion ñoom nga ndax ñu dugg xool nekk loolu nekk fa yooyu daa mat di vie yëpp fii la yem ci àdduna Mmh, soriwul sens yal na yàlla def ko télé boo xam ne day barkeel lool amiin bari nañu fi jariñu mmh. ndax ñu fi ne borom xam mu wax dara nit toog ci këram mmh. dugg gis ko daal di koy bind dara jëfandikoo ko mu jariñ ko son nekk ci gën cee góorgóorlu ci lii rek la nit ñi xam la jàmm te yokk say fii suñu borom dafa leen seen ay milliards la amiin waay santal gërëm ku la neex santal gërëm ku la neex sant ñëpp di sant waa maj mawatul mahadiri muy kuréel gi lëkkale waxtaankat yi sëñ hmm. daara bi maa nga ci maay parole ba sëñ Jibril Sène jëwriñ ja sëñ Moussa Sadio Sow sëñ Mbaye Mbacke sëñ Amar Diouf sëñ Cheikh Lo mboolem ku fa nekk rek sëñ Cheikh Sey hmm. waaye di ñaan yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm hmm. ndax bu ñu amee jàmm rek bu jàmm amee rek lépp am te jàmm mooy jàmm yàlla te nit ñu xoolaat bu baax a baax sunu doxalin ni yëpp di aw ñu ñuy teg dil ak liy am ak coow liy am ak feebar am naag amut ak ñi diggam ñi ñàkk bi ñu lépp ay natt la yu teg rek mooy nit ñàkk doon bu ñàkk doon benn ak koo wax mu wax ka ca des hmm. ku ne koo waxal mu war la koo dégg mu nett li ko keneen boo waxee kenn dara mu ne sama xarit laa ko wax yow dong laa ko wax keneen keneen ni ko yow dong laa hmm. dugg hmm. sa diggante yàlla moom yàlla sax manquéwul manqué bi mu taxawee naan diw Cheikh Talib kaay fay ma nag ma tooñal ci yàlla mag mu tali moom boo ko jégguloo mën laa jéggal waaye nit ñi gis mu dugg sawara ak dox sa diggante nit ñi moo la fa dugal mooy diw kat ñu ngay xurxural looyee ne fi appartement hmm. ma ngay doxal ci tegtal am nay caméra nga ni kat wóor ta mën a nekk hmm. lu tax hmm. yàlla mi moom wërsëg yi di ko joxe fi ne Donald Trump lu mu defal yàlla mu def ko président Amérique ba wàcc ko yëpp Macron lu mu defal yàlla moom yili France bu rëy gi ku ne bëgg ko yor Macky Sall mi lu mu defal yàlla ñaata nit la juddoo dool fii ci mi yàlla def ko président ah? yàlla moo yor dogal moo tax loolu boo ko xamee rek nopp yàlla yàlla def jàmm ak xéewal ci ñu nangu dogal yàlla yi Mm-hmm. jërëjëf yàlla na yàlla def moo tax dëgg na sànq waxoon ko ci biir nga ne ñii naan dama gëm sama bopp ne ni moytu gëm sa bopp du tax a am de da ngay gëm yàlla pare xam sa que bu dee sonn rek nga ko teg am na maçon yu la gën a sonn fuuf te yoruñu yàq duñ doxaan duñ fecc fen duñ rambaaj te dañuy xëy chaque jour ñu kon du sonn mooy tax am du ñàkk a sonn tamit mooy bañ a tax nga bañ lépp gëm yàlla la ba boo defee la war yàlla moom li ko war la gën a xam sa bopp gën mhm. yàlla pare na ci bu yàgg Mikaayil moo yor xéwal mooy malaaka mi yor taw bi yàlla daan bu fajaree boo xëyee na nga jox diw junni mhm. diw bu subaa na ko jox million muy tëb di dal naan si sama coupe tay bi million laa ci gañe na ci diw nag bu subaa bu ko jox dara mhm. yàlla pare na ci waaw ne ko bu subaa na nga taw yëmbal waaye bul taw pikin subaa na nga taw Liberté 6 mais boo passé rond-point bi tuuti bu fa taw nga taxaw fii di gis taw ba yàllaay dogal waaw moo tax kenn duñu mere di ci wërsëgam hmm. moo tax koo gis mu faatu wërsëgam a jeex hmm. kon daal gëm yàlla rek ak doyloo yàlla gu mat di sol lu oyof di kii fekk dangaa jékkul àdduna rek boo ko jekkoon waa xam nga Yékini kay bu la tooñee nga ne ko bàyyi naa la ak yàlla ñàkk pexe la mais boo ba moom ci boppam boo ko tooñee mu bàyyi la ak yàlla am nu mu demee nag boobu a a baax l'islam ndaw la soxla àddina ndaw la soxla kon ndaw na farlu ci diine ak ci lu baax a baax gërëm nañ équipe technique bi ñu àndaloon Mohamed docteur Wade bu Casamance nekk ci euh, Cheikhna Diaw bu Daaru Moussi bu Njeng Diaw nekk fi ak Thiès étudiant la Thiès Baye Massamba Diop nekk ci équipe technique bi Petit Sow Gaw Sow nekk fi mat nekk fi euh, Soxna May Diop réalisation gërëm nañ euh, sëñ Am Diop gërëm nañ tamit képp koo xam ne que daal bëgg nga lu baax rek mais amul leen nit ñi fàttalikoo sëñ Saliou ay lu ci mën a wax ñu au lieu ñu wax sëñ Saliou mais ki mënul wax mu ñaan bis bi ñaanal sëñ Saliou dog yoo joxe yoo xam ne sëñ Saliou la ñu bi. waaw maanaam maa ngi koy wax démb fu ma demoon doon waxtaan ma ni comme yan saa salaam wax ni douze mille bismillahi rahmaani rahim nit koo ko defal mooy fi daaw ngoo kenn du ko dugal sawar mais boo kenn ku nekk dugg ci ruq nga defal sa bopp nit nit ñi boo faatu duñ ko tal ñoo ngi ci yeneen. ci biir dëj bi dañuy connecté di wax di wax ak ku leen neex hmm. moo tax ku ne na nga dugg ci ruq jaaxal sa bopp douze mille basmala nga fi daawoo sa bopp hmm. xamoo tey ngay faatu xamoo suba hmm. boo faatu dem àjjana waaye nit ñi taluñu ko teg ci tamit maanaam kilifa boo koy ñaanal rat na ko mel ni Serigne Saliou mi ak ñaan ñëpp ko bëgg ñeent fi ko xuloo laa waxat baax na lool ñetti xuloo laa waxat baax na lool douze mille basmala yi kooku defal yàlla dugal ko àjjana waaye xam nga ko mel ni Serigne Saliou moom xalaatuñ ci ak ñàkk dem àjjana ak yooyu waaw moom doomi Serigne Touba la a la jóge dafa lay dellu loolu mooy sunu gëm-gëm ci moom ci mooy li am ndax Serigne Touba nee na sama doom yeeg ñëpp ak samay waajur yàlla jéggal na leen man ku ma bëgg sax yàlla jéggal na ko waaw kon loolu pare nañ ci kon yàlla na yàlla def jàmm tubaarkàlla di sàkku daal yàlla na yàlla def jàmm ci kër gi rek ok jërëjëf ñu tuub jàng alxuraan def lu rafet rek ngir sëñ Saliou eh, Tektal TV la woon lan